Vous êtes bachelier ou étudiant des séries scientifiques. Vous aspirez à devenir un cadre polyvalent, capable d'appréhender les nouveaux défis qui gouvernent le monde des sciences et de la technologie. Entrez dans la grande histoire de l'École supérieure de génie industriel et biologique. Votre formation est assurée par des universitaires certifiés CAMES, avec plusieurs années d'expérience dans le domaine. ESGIB vous offre une formation dans les filières suivantes: génie biologique, génie des industries agroalimentaires génie des industries chimiques, hygiène, qualité, sécurité et environnement, génie des procédés industriels. Les inscriptions et réinscriptions se poursuivent. Nous sommes à Sacré-Cœur 3 Extension, en face VDN. Pour tout renseignement complémentaire, appelez-nous au 33 867 02 03, 33 867 02 03 ou au 77 094 05 75, 77 094 05 75. Email esgib-sub@gmail.com. soppeek xarit yi fu waay mën a féete ci àdduna bi ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm ci sa kanam kanamu télévision Futur Média di souhaiter nag ñëpp bon semaine ni ma koy waxee rek semaine bi dañu koy commencer ak ay sourire commencer ko ak beaucoup d'enthousiasme macha allah bu ko defee li ci des nag ñu jox sunu borom donte mooy commencer mooy mujjee macha allah ñu ngi leen di nuyu bu baax kilifa diine yi kilifa aada yi boole ci cofeel gu dul jeex ñu ngi ziyaara ñi nga xam ne ñooy sunu xalifa généraux yi. ñaanal leen yàlla ñu yàgg fi lool te mu ànd ak wér di dugg nag ci hôpitaux yi ziara ñi nga xam ne ñooy maladie bàyyi leen xel bu baax a baax ñàkk xam sa jàngoro loolooy jàngoro waaye jàngoro boo xam rek incha allahu taala yàlla dina la boole ak ki kay faj te itam loolu yàlla na leen dal bu ko defee itam dugg nañu ci prison yi lu sunu mbokk yi fa nekk nattu du wees te ku ne ci àdduna di nga ñam ci yi fi am mooy les hauts et les de la vie ànd ak lu mënti am rek boo ko nangoo rek sunu borom jeexal ko ñu ngi fàttaliku ñu ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom ñu nekk ci njéggalu sunu borom njéggal xéewal gi yal na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu xel day dem ci suñuy wayjuru bopp ci suñu ay wasila macha allah ak itam suñu ay mag ak suñuy rak yal na yàlla yërëm leen bu baax a baax di itam jaale euh, bépp laayeen macha allah ñu ngi leen di jaale dem euh, ëtti sëñ Ablaye Thiaw Laye di ko présenté suñu njaal macha allah ndax ñun ak ñoom benn lañu ñu ngi leen di xalaat bu baax suñu wayjur yu baax yi fi jógee laay maxtaar yal na yàlla yóbbu leen ci aljana yi gën a kawe macha allah yal na yàlla def ko bu baax a baax ci barke maam li maamu laay Ndiaye salaamaaleykum leen maa ngi nuyu bu baax a baax ki nga xam ne Diop la sant salaamaaleykum. bu eh, ci teg baat de Diop nga fi sant ba ba nga fiy jóge sama maam El Baara Diop moo tax mun sinon ma ni Ibou Cissé bu mu wane sa kanam sama maam El Hadj Baara Diop moo tax wallaay te la wallaay moo tax mun ma ko bañ fële ca Thiès Kër Mamour maa ngi leen di nuyu ñoom bu baax a baax mhm. di nuyu waa altu ndàngal ma euh, di jaale ma nit sama bàjjen Mati Ndiaye ñu ngi koy euh, jaale tey jii lañ koy saraxal foofu ci ndàngal ma di sama sœuru papa mhm. maa ngi di jaale ñoom ñëpp famille bi yëpp tamit yóbbu leen aljana Euh, li may wax rek soo xasee nuyoo ñaan yu yi nga si boole. Mm. day matale ba tax na amin rek la ñuy wax. jërëjëf waa di ñaan yàlla nangu li nga ñaan rek. jërëjëf Ndiaye jërëjëf kontaan nañu lool. Mm. ani sa xarit moo la yebal. waaw li may wax rek envoyé spécial. waaw enquête ya bëri. <laughs> macha allah enquêteur la. yàlla na yàlla def barke ci liggéeyam moom itam doy baan. ajaratu li nga yow itam kontaan nañu. xam nga xam nga da ànd ak da nga ànd ak temps yëg nga yëg ngeen tàngoor gi ci Ndakaaru très bien balaa sa micro di yeewu ni gal ma romb ci Xadijatu ah, Seydou Thiam ma nga xam naa bàyyee jàpp micro bi moo tax lépp di ci xew macha allah Xadijatu soxna Xadijatu euh, Seydou Thiam mhm. euh, di présidente COPEX mhm. ñu ngi lay accueillir ak euh, xol bu sedd bu bare bare macha allah mhm. dalal ak jàmm waaw kañ merci jërëjëf Eva di nuyu ñëpp ah. ah di sant yàlla bu baax julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di sant bu baax ci weer bi ñu nekk itamit di ñaan yàlla vraiment ñaan yi ñu ciy ñaan euh, julli yi ñu julli ci sang bi jaamu yàlla biñ ciy jaamu sallallahu alayhi wa yëpp mm-hmm. na ko yàlla nangu amiin amiin jaay Seydina Mouhamed sallallahu kontaan toujours di ñëw fii parce que toujours li may wax rek mm. en tant que président de l' association yëpp fii la démarré woon il y a mm. quelques années mm-hmm. donc bu ngeen ñu invité fii rek dañuy kontaan di la nuyu bu baax Eva soxna Eva Tra mm-hmm. di nuyu soxna mami euh, di la ziyaar bu baax sëriñ bi ma fekk fii di nuyu àdduna bi yëpp mais spécial nuyoo à sama waa association di waa COPEX mhm. collectif des parents et amis des enfants de kër xale yi mhm. ndax bi mhm. xam ne dañu wàññeeku ci xel dëgg la voilà ñi nekk foofu donc man maay seen présidente kuréel bu ñu euh, organiser la foofu man ma nekk seen présidente ñu wóolu ma jox ma présidence bi tey bi ma woowee ci suba bi ma leen ko waxee dañ ma nekk duñ ci teg baat yow la délégué demal xamal nga ñu xam nga bu baax nooy waxeek ak ñun mm-hmm. donc vraiment confiance weesuwul ci loolu mm-hmm. maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen sargal à chaque fois di ñaan yàlla woyofal yéen bi ci ñoom ñëpp amiin ci ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo yor xale yooyu amiin ak di remercier ñëpp nag commençant ci président bi nekk fii mm-hmm. Youssou Ndour ba ci ñëpp képp ku fi nekk maa ngi leen di remercier bu baax a baax parce que yéen vous participez toujours ci euh, liggéey bi ñuy def combat bi ñuy def ci participation bi ci sensibilisation bi ak communication bi à chaque fois bu ñu waree ñëw da ngeen ñuy ubbil seen bunt wala ngeen woo ñu sax proposé ñu pour ñu ñëw. waaw kañ di nuyu ñëpp nag suñu suñu euh, partenaires yi di nuyu samay mbokk suñu mbokk. jërëjëf waaw di nuyu waale nag spécialement ay soppe yoo xam ne dañ ma yóbbante ci yow ah, kenn ki mu ngi tudd soxna Adja Binta nekk France waaw nee na vraiment yow soppe woom nga alhamdulilah voilà di nuyu tam ku ñuy wax sëriñ Lo Serigne dañ maa yóbbante ñoom ñaar ñëpp tey ñu ngi lay nuyu <laughs> ay seen soppe la ñuy yóbbante bi agsi na ñu ngi leen koy delloowaat ba mu bare doole mhm. tabarakallah macha allah mhm. ñaan yàlla mu dolli nu jàmm def lu baax defe naa ne yàlla kenn gënu koo baax ne saa bu nu xëyee suba teel mu may ñu pour ñu def lu baax mhm. choisir lan la ñuy def ci suñu ay minutes lan la ñuy def ci suñu ay secondes suñu ay jours ak suñu ay weeri weer yoo xam ne saabu yeewoo mi ngi ñu koy may def lu baax yomb na ne gis ngeen ne ñun itam dañ leen a fekk si xam seen bëgg-bëgg ne am na ñoo xam ne dañuy bëgg def sax duñu xam sax fu ñu koy defee waaye nag mën ngeen a jàkkaarloog ñaari semaines yi daal seen télévision Futurs Médias rawatina émission wareef ndax ñu ngi waxtaanee entre aide sociale jamono boobu la ñu ne jafe-jafe yi ñu ngi fi du fi jug liñ koy waxee rek kuy dund ku ne danga jàmbat waaye kuy dund ku ne dinga am itam loo xam ne dana la jaaxal ci kaw loolu boo jàppalee nit ki dana am lu bare loo koy wàññil jaamu yàlla yomb na gisuñu yàlla ci jaamu yàlla yi rek la ñu koy jaamoo kon bokk ñuy fàttali ne ki ñu invité mooy xat Khadijatou euh, Seydou caam wax na ko léegi di présidente euh, COPEX ñoom ñëpp nag ñu ngi leen di nuyu COPEX comme ni mu ko waxee mooy ay parents yoo xam ne daal dañu am njaboot te njaboot bi yàlla dogal ci li mu ciy dogal mu doon bànneex nag ndax mm-hmm. yàllaay xool rek dénk la mm-hmm. bu la wóoluwul woon sax du la dénk ku mu jox njaboot bu ni mel rek daf laa wóolu moo tax mu dénk la may wax ma mami Linguère bisimilah fàttali nit ñi mën na noo woote ci 88 628 22 22 88 88 628 04 05 bu ko defee ñu partagé ak yéen xalaat yi. wallaay te xam naa ne ñoom ñuy woote itam dañ ciy sawar ndax xam nga social moom. Mhm. li may wax rek mooy li des ci adduna bi. dëgg la ci wax ci jëf ci lépp ci jàppale ci taxaw. kon ku yeboo rek daw wutali ko kon dañu ñëw rek door nañ daan dooreti nett jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ëllëg sama maam yàlla mag Nelson Mandela topp koy jaloore di ziar mbooleem kilifa diine kilifa day di ñaanal sunu soppe ba sunu maam Cheikh Tidiane Al yàlla yàlla yokk leeram taasum ci barkeem Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla yan bi woyof lool ci kawam ak mbooleem sunu xalif généraux yi di ko teg ci loxo soxna jaare caw laay mhm. di ko wax ne ko nañu ziyaareel kilifa gi waaye nañu ko massawul ñëpp ñëpp ñëpp àdduna moom mi ngi noonu demal maa ngi ñëw rek wallaay wallaay yàlla na fi yàgg te wér ku li ndax seen saa yaxatil maw xam nan ne moom bakkan bu ñam dund rek di nga ñam dee mhm. waaye ñoom ragalunu fa nu jëm ndaxte liggéeyal nañ seen boroom loo xamante ne mhm. wax dëgg yàlla am xëy na dema metti dema tiis ndax li ngay bàyyi sa ginnaaw nga dul xam di bégaat bu baax a baax ci soxna si comme ni mu ko waxee li nga wax rek Eva gis nga doom waaw du yàlla am lu mu teg ci moom mm-hmm. li nga wax yóbbante yàlla la mm-hmm. te ki ne la am dafa am lu am solo lu mu waxoon daf ne yóbbante yàlla wóor mu ne soo bëggee mu def ci sa ndab soo bañee mu def ci sa ndab kon nangul mu def ci sa ndab muy sëb cër te koo dégg mu naan la li ma yor tey ay caaxaan du ko yóbbu la mu yoroon démb ay caaxaan ne ko panget kenn ku nekk la nga yor suñu boroom a la ko jox mm-hmm. waslu ci àq waaye la mu la dendaleel suñu boroom moo bëgg nga moo bëgg nga jàpp ca moo bëgg nga xam ko kon jàpp ndax man damay wax ma ne jànq bi ñëw di daan si doole ci sa biir kër sax baaral africain mën nga ci social ndaxte xawlal 16 millions d'habitants kooku mënoon ngeen dund ba dee du ngeen xamante du ngeen séq dara kon su yàlla doxalee benn bésub xamante ba ngeen bokk génn kër mm. c'est parce que am na lu suñu borom namm ci yow te suñu borom wàccegul jox kenn loxoom bi ne la am mm. te ki lay jox dépense te musul ni la tibbal ma bool loo koy sédd war naa rafet baara l'africain sañ sa bi rafet jërëjëf dañuy delloo baara kàddu gi balaa ñoo dem ci Xadijatu sox mm-hmm. euh, Seydou Thiam mm-hmm. Mm-hmm. Euh, social dafa nekk mbir moo xam dafa yaatu euh, sa soppe boobu ngay wax Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum daf ne daf ne nit nit dafa war a xam responsabilité bi ko indi ci àdduna mhm. mu ne ndax conflit moo ko mhm. indi ci àdduna mhm. entre conflit suñu borom ak iblis mu ne ndax nit nag war na heure bu xëyee suba ba ngoon war na xam ñaar ñooñu ko gañe mu ne nit ki bu xëyee yendu ci def lu baax ba guddi ne man fenu ma sàccu ma tiriyandew ma jaxasew ma ay nit nee na bu boobaa dina mën na tey yàlla moo gañe mu ne mais boo xëyee di wor di sàcc mhm. di fenn mhm. doo dimbalee mhm. jëkk ci lu bon nee jour boobu mën nga yëkkat sa loxo a gagné <laughs> léegi nag nee na nit ku nekk jour bu nekk jugement boobu war nga ko defal sa bopp imaginel euh, social laaj dara gënu ko metti laaj dara gënu ko metti mooy jàngoro gën a garaaw te boo xoolee ci suñu société yi li fi gën a fréquent ci ñiy demande sociale ñett yi la ñuy laaj lu ma dunde lu ma fajoo lu ma xewe lu ma dunde lu ma fajoo ak lu ma xewe lu ma xewe waaw soo xoolee ñett yooyu moo gën a fa très rarement la la nit di ñëw ne la dimbali ma ci ci lu ma liggéeyee mhm. très rarement loolu tamit lu ñu war a bàyyiwaat xel la mhm. te gis nga kii laaj lu mu dunde <laughs> par exemple tey ni ñu yàlla binde ci koñ bi mu leer la ne yow da fi bàyyi sax liñ naan bool dof liñ ko niñ koy waxee uh-huh. appellation yooyu uh-huh. te am na koo xam ne moom amul boolu beneen bay am beneen bool kon foofu lañ war a commencer sociale bi nga xam ne uh-huh. tey man lekk naa ba suur mais sama morom bi nekk ci koñ bi lekkul est-ce que kooku da nga ko war a seetaan muy génn di tàllali loxo oh. pour laaji am na ñoo xam ne ñi ngi dëkk ci dëkk bi di dimbali ay nit te bugguñu sax nit ku leen gërëm parce que kii def lu baax oh. buggul ku ko gërëm mais am na koo xam ne boo ñu mere la waaw am na koo xam ne day def social wane na social lay def mais moom day dund ci social boobu li muy laaj moom yóbbu ko fi ñu ko soxlaa subhanallah day dundee social boobu moom mhm. mais dundalul social maanaam ñu jox Eva Eva téye ko ci eh, poche voilà xam nga par exemple tey nga am association gën a xam nga soo amee association. man soo ma laajee ma jox la. man xam naa ne du pour yow. bi ma lay jox du pour yow. te muy dëgg. te yow bi ngay ñëw di ma proposer proposer woo ma sa bopp. <coughs> bu boppam doo ko jox dara. bari na fi ñoo xam ne. proposer wuñu seen bopp mais bi biñ leen joxee. lañ leen joxoon dugaluñ ko fañ fañ ko doon laaj. ba ci ñi dem ci dëkku naar yi naan dañuy laaj. bu fi defar dara njaay sant bu fi naxasaale. xaaral rek ma njaay la ñu sant. ba ci ba dem ci dëkku naar yi di dem di laaj ay asaka naan dañuy tabax ay jàkka. Mhm. ñi naan dañuy tabax ay daara genn wàll gi tabaxuñ jàkk tabaxuñ daara. Mhm. dañuy dem di laaj day mel ni ma dem ci soxna Astou Sall ca Dubaï. waaw ni ko daal damay tabax jàkk Sénégal. Ah, yóbbu photo sax yóbbu photo jàkk ñu. la ngay dem kay da ngay dajale goney koñ bi ñu sangoogut. xam nga damay yóbbu projet. xam nga non da ngay dajale goney koñ bi ñu sangoogut ak ñi xiif nga toggal leen benn mbana ceeb yekk ko 33 booli. photo leen taajal leen fi ñuy dankee bay sex nga photo nga photo ñëpp filmé yóbbaale. xam nga léegi nag léegi nag ne ñii ñëpp maa leen yor ci samay man maa leen di dundal sama poos mhm. benn yow wax nga dudul dëgg mhm. ñaar laaj nga ci àq ñoo xam ne yow du sa àq bi nga ñëwee dugaloo ko foofu su ñu ñëwee beneen social la ñuy defaat dem feneen defaat loolu léeg-léeg bu ñu xamee ne boobu mën a cóol na ñu dem feneen na dëkk bi dañoo soxla teen dajale fekk jigéen ñoo xam ne ñu ngi ci àll ba yor ay bidon ñu dajal leen dugg seen biir ne voilà fii lañ war a def forage fii lañ war a yooyu yëpp te ñoom dañuy dunde social mais dundaluñ social kon nag li nga fi nga dugg noonu dafa am solo parce social la ñuy waxtaanee te bu ñu waxee social jàppale la waaye ci biir jàppale boobu mm-hmm. comme ni mu ko waxee am na ñoo xam ne daal dañ ciy dugg def ci loo xam ne kenn santu leen ko yàllaa ngi leen di gis liñ naan yàlla moo xam lépp mi ngi leen di gis mm-hmm. ngal la bàyyi leen loolu parce que ni ma ko waxee rek mami mm-hmm. bés bu la yàlla may na la pour nga changer doxalin yow yaay xool ban yoon ngay jël soxna Hadijatu Seydou Thiam ñu delloo si la kàddu gi naka la seen association bi def xam naa ne bu ñu leen dolli woon ngeen jël loolu nga may wax de <laughs> yow yow yow Eva Tra xam nga yëpp <laughs> li tax ma dégg daaj ay ca yow moom xam nga yëpp c'est vrai vraiment euh, toujours c'est une bonne occasion ñëw mm-hmm. toog fii waxtaan ak moom di dëggal li mu wax ndax mm-hmm. social suñ koy wax man dama naan sant naa yàlla déjà man sama formation sax sociale la. travailleur social la. damay gis nit ñi di def ay sociale léegi. beaucoup plus ma ne alhamdulilah parce que c'est au début et à la fin de tout. yàlla lu mu def moom moo ko xam su ko neexoon mu sàkk ñépp am. ñëpp am ñëpp tolloo kenn soxla dem ci biti di ñaan wala di laaj dimbal mais li tax mu def kii am kële amul ba pare ne ci seen liggéey na ngeen ciy génne asaka benn mille franc bu nekk ngeen joxe ci juróomi dërëm moom xam na pour lan kon nag ñun doomu aadama dañu war a xam ne ku nekk boo tanee sa morom am nga mission et en commençant ci sa biir famille waaw parce que famille ci la lépp démarré boo rombee sa famille nga dem ci sa famille élargie dem ci sa koñ dem ci ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne lu askan kawe kawe kawe am na koo xam ne yaa ko tane mën koo dimbale loo mën a kawe kawe juddu nag dimbale dañu naan ah baax yombul man nag maa bëgg ku baax man maa bëgg dama ne baax mu gën a yomb. Mhm. parce que bon boo koy def. ñu ne baax yombul nga ni baax a gën a yomb baax yomb na yomb na c'est facile Eva mhm. nga am sa 1000 francs jël ci juróom jox ko ki nga ko war a jox. Mhm. nga xool yërmande mais nag loolu day fekk nga am xolu yërmande. nga am regard boobu ci nit. xam ni kii tey jii war nga ko mën a defal dara jàppale ko man de nee naa leen. ah ba yàlla di dindi sama bakkan bii lu ma mën di waa yàlla na yéex dinaa jàppale nit mm-hmm. doomu aadama jàppalewu ma ngir ngistal jàppalew ñu mais bu ñëpp defoon mm-hmm. comme nit ñi ngi def ak sincèrement nag pas comme li mu wax nga xam ne da ngay dem di demander ay aide pour ñuy jël aide bi di la ko jox nga féetewoo ko wala nga ciy def faj say soxla mm-hmm. pour nga dimbal ni il y moins de misère dans le monde su doon ku nekk li nga mën yaa ngi ci dimbale sa morom tey xam naa ne lii laa mën lii laa mën a euh, jàppale soxna mami mi nga xam ne lii la soxla mhm. wàññiwu ma dara mhm. wallaay dama koy def mhm. bu ko defee mami su génnatee du jàmbati jàmbat boobu xëy na leneen lay jàmbat gis-gis boobu lañu wax am wàññi ngistal bi wàññi yàq bi delluwaatal gannaaw wàññi ngistal bi waaw wàññi ngistal bi wàññi fi nga xam ne da nga fa da nga fay yóbbu loo xam ne kooku bi nga koy jox soxlawu ko may ku ko soxla nga jox ko ki ko soxla. mais fii jal bi jal laa la xale woykat bi doon wax daf may daal. daf dëgg la ah? nga jox ko ko loolu la nga ki nga war a battre nga battre ki nga xam ne tey jii euh, doomam baa ngi nekk ci état bu métti garab boo xam ne 10 mille francs lay jax wala 8 000 francs amu ko te métti na ci moom. yow wóor na la ne yaa ngi dëkkandoo ak moom yaa ngi nekk ak moom xam nga ne moos ndaw si tey jii wala pa euh, waa ji doomam ni mu nekkee métti na boo xool boo ko xoolee xam ne bokk la keneen xale yi nga yëkkati ci sa poche jox ko ko te kenn du ko yëg mhm. bul xaar sax nit ñëw wala nga nekk ak moom mu ngay mbokkam di ko buntu xataal parce que doomam mel na noo xam ne melu euh, yàlla moo ko sàkk noonu mënul téye boppam comme yeneen xale yi mhm. kon vraiment ne nit ñi delloo seen xel dimbale waate mhm. dimbal nag ci se partout entre voisins entre frères et sœurs dimbal ndey ak doom am na ndey yoo xam ne sax dañuy préférer euh, yëkkati ki nga xam ne mu ëppale doomam bi nga xam ne moo ci gën a néew doole sax ñu tuutil ko te kooku bu ko dimbalee woon tuuti wala xiir ay rakkam ak magam ci moom travailleur social jaadu na donc loolu yëpp mu ngi ci bu ko defee on aurait beaucoup plus de paix paix ci sa xel ak ci lépp ci àdduna ndax ñàkk Eva mooy andi lu ne ñàkk c'est la maire de tous les vis dans ce monde parfois nag mën nga mën a expliquer excuser donte sax c'est pas excusable yenn yenn attitude yi mais boo xoolee au fond danga naan kii xëy na li mu ñàkk moo tax mu def nii def ñu def nii mhm. waaye nañu dimbalante nañu sóor ñi ñàkk nañu sóor ñi feebar nañu sóor ñi sonn nañuy dimbalante loolu c'est mhm. très important macha allah mhm. dafa dafa laal fu am solo ay ca Linguère li mu ne ñàkk mooy ndeyu vis yëpp ki nga tànne te dimbali woo ko lu ko dal yaa ko ko teg del dolli ma. ki nga tane te dimbali woo ko lu ko dal yaa ko ko teg. bu dee bu ko autopsie. non yaa ko rey bu ko autopsie. yaa ko rey bu autopsie sa kanam ngay gis de. <laughs> nga nag ki nga war a jëndal ordonnance su mille francs xaar ba mu dee nga jëndal ko nagu 150000 euh, ma nga lay xaar yombal xiyam. Hmm. am na néew yoo xam ne bu paasu retour amoon bu ñu dikkee fii dinañ dóor seeni mbokk ba ñu dee. da ngay wopp nekk ci biir kër benn ni ko ajaratu déggan daan waxee ñi feebar te tëdd ci néeg yu lëndëm yi ndax bu ñu jàpp ne ñi feebar ñëpp a ci hôpital yi mm-hmm. am na ñoo xam ne amuñu lu leen génnee ci biir néeg bi ñu dëkk mm-hmm. ba di leen indi ci kër gi digg kër gi ba di leen yóbbu hôpital te ñu ngi tëdd ci biir kii bi te comme li Ndoye Bane di wax boo laajtee boromi mbokk yu baax lañu ci réew mi mm-hmm. euh, mu war a dem hôpital fekki woo ko fa seetoo ko mu soo ko jëndal ordonnance waa kooku lu sa yoon ci moom ba bu deewee nga baasal ko te nag seetlul. ñi ñu bàyyi ñuy misère te am ay mbokk yu baax bu ñu dee ak ñoo nangoo guddub tàgge. son excellence président Macky Sall. dégguma la de Macky sañul loolu. Mhm. monsieur le ministre diw noo tàggee ba. Mhm. son excellence monsieur le président Macky Sall la ñuy jiital ci kaw. Mhm. président diw. monsieur Moustapha Niasse président assemblée nationale. ajaratu diw borom lam bu diis bi sax buñ ko ci ñemee bind dinañ ko ci bind. gani nga gis ñi dàqam misère. waaw ñi nga xam ne da ngay da ngay dëkk ñoom jàpp ne amuñu ay bokk ay doxandeem lañ ci réew mi bis bu ñu faatoo nga gis oto boobu mës sa gis. Mm-hmm. macha allah mami. oto yu baax yi rek kay gaare. Mm-hmm. borom 4x4 yee ñëw. jéeg yee ñëw ñëpp nag ay cuub la ñuy sol def ay lunettes yoo xamante ne day toll ne pare-brise oto. Mm-hmm. ñëw ñu naan leen si gil ndigaale ñu naan ma sa yàllaa ko dogal di. bilaay dem mënta ñàkk di. boo ko taxawoon faj ko ci ba mu jotee du dem. ane caméra bi Ibou Cissé ana mu moom. noo ko doon leen nga ni xam nga xam nga danga yóbbu Eva dana toog waxtaan ak ku ne. Ah, dafa am dafa am jigéen joo xam ne. <laughs> Euh, ah, nii rek laa fi dafa am baax na ci baax na ci xam nga ñii bu ñuy leem-leemal ñii ñu jàdd nii faaw am ku dem directement. <laughs> ma génn récréation ba. Adja Linguère mm-hmm. soxna Hadjatou. dafa am benn jigéen joo xam ne maa ngi koy nuyu. Mm-hmm. ndax euh, ci waxtaan. liñ naan danga nga seen nit sopp ko toog ak toog ak moom cofeel bi deñ da nga seen nit soppoo ko toog ak moom jaare fa sopp ko ba faw dafa am jigéen joo xam ne dañu mës di waxtaan mu ni moom héritière la ñu ngi koy nuyu mu ne dafa am ci àddunam naqar ndax moom yàlla mënee na ko gan mi ngi def li mu mën mais dafa am naqar parce que seen kër ak ay maamam ak yooyu dañ leen bàyyil ay bien te bien yi ña war a jot jotuñu ci daf leen di romb ñuy taxaw ci mbedd mi di xaar ay car rapide nee na moo tax elle n'est pas tranquille dans sa vie mm-hmm. est-ce que dégg nga wax ji bu baax mm-hmm. xamul woon ne jàpp naa ko bay toog nii di ko wax mm-hmm. mu ne moo tax moo tax amul tranquillité xolam seddu parce qu'elle se met dans leur peau nekk ak ñoom di imagine li ñuy dund te pourtant ñu waroon mun a miiras miiras mi féete boor ku ci ne nga am looy togg di Euh, di yekk di di di teral sa njaboot yóbbu leen ñu jàngi mais ñoo ñooñu mënuñu sax yóbbu seen doom dans de bonnes écoles. est-ce que gis nga li ngeen di wax ci entraide sociale. Eva euh, waaw euh, ba tekki da ngay tekkil say bokk ko mooy bu say bokk takkoo ba tekki teggi la. gis nga li taasukat ba waxoon dukk dukk jeeg jamax jamax ji. Hmm? xam nga gan saful mbaam. ndax mbaam du ca dee te doomi mbaam du ca dee. nga ni gan. saful mbaam mbaam du ca dee te doomi mbaam du ca dee. Hmm. nee naa la bari na fi borom 4 x yoo xam ne bala ñu ne ma pimp ma wàcc tali bi. yow yaay jëkk a wàcc boo leen. non man bu ma leen séenee maay dem. <laughs> seen conscience tranquille ah. bari na fi borom kër yoo xam ne yaa ngi leen di gis ñu di leen wooyee borom barke bu ñu xëyee bu ñu duggul hôpital bi soxna si nekk duñ tuurum ndox. Mm. am na fi borom barke yoo xam ne dañ leen daan wooyee borom barke ñu yor lu ne gaañ. bala ñoo faatu dégg fuñ hospitalisé sukuraat sa yàgg lool suñu borom da leen di euh, sàbbi. Mm. ñu naan tonnil leen leen ci kilifa. Mm. nga gis fi koo xam ne dañ ko daan wooye borom lam bu diis bi mhm. mu dem ba balaa faatu fajoo alalam yàllaay dikka ki dogalam mhm. mais ñu ci bari nañ xool àq kan lañ gàddu mhm. ndax dëkk ci biiru askan sax di leen xeexee sa doole di leen xeexee sa alal warul leen a dimbali te dimbali woo leen di jënd tur di jënd tur te réew mi ñu nekk ku fi jënd tur bëggi maam yu riis ku mu fi tax a jënd maam boo yeexalee boo noppee luñ lay boo jeexalee da ngay dégg ku yées sa maam très bien te Eva koy wax kii dundeek may bu hmm? ko mujjee may yaay xaritam hmm. Cheikh Abdoulaye Mbacke sama sang bu baax ba ne jërëjëf li muy ndaw ndaw ndaw du ma ko wax ku ma defalul dara hmm. waaye ki la koy defal kan la kii jënd tur nga xam ne bala mu laa may mbete caméra taxaw bala ngaa dimbali say mbokk mbete nga leen toroxalee ndax dinga nga leen daaj ci banwu gardien bi ba yëre bi ñu indi woon dina saf saabu miinug liñ te ñeme ay kepp jërëjëf soppeeku jot soxna Xadijatu ma rappelé téléspectateurs yi mm-hmm. euh, numéro téléphone bi nuyuwaale Mia Ndour et son équipe ña nga ci régie ba ne tekk mm-hmm. dafa am bés yoo xam ne dañuy yëngu lool waaye am bés da nga naan waa régie nekkuñu fi mm-hmm. kon ñu ngi leen di nuyu ñoom euh, Alioune Diagne Ibou Cissé ak euh, ñoom am macha allah 88 628 22 22 88 628 04 05 Xadijatu boo fi teewee bëgg nañu nga wax ñu xale yi ngeen yor naka la ñu mel parce que am na ñoo xam ne ñu ngi seetaan seetaan mhm. te bëgg nañu xam exactement ce qui se passe waaw kay jërëjëf euh, Eva maa ngi lay remercier encore donc euh, association bi mu ngi tudd COPEX collectif de parents et amis des enfants dëkk mhm. xale yi ñu nekk hôpital Fann ay xale yoo xam ne la dañoo wàññeeku ci xel noonu la ñu juddoo euh, nekk nag fii Sénégal xëy na kuréel bi ñu bëri xamuñu ko woon waaye depuis euh, quelques années ñu ngi def sensibilisation à travers les médias réseaux sociaux yi ba nit ñaa ngi ñuy bëgg xam xale yi fan la ñuy ñëw fan centre pédopsychiatrique bi nekk foofu am na psychiatrie mooy adulte mooy fi nga xam ne vraiment ñi nga xam ne seen xel neexul foofu mag ñi foofu la ñuy yóbbu euh, pédo centre pédopsychiatrique bi nag moo dépendre foofu euh, foofu la dépendre mais xale yi ñoo fay dem xale yooyu nag bu nekk nga fa ah di nga gis ñoo xam ne vraiment euh, mënuñu wax seen ndox demeewul noonu. Mhm. xale yi dañ leen wax xale autiste. catégorie bu nekk am na fa am nañu autiste am nañu IMC am nañ yu nekk daal bëri na fa wax ko ci olof dafa may xaw a jafe. parce que duma mhm. ko duma ko mën a traduire ci wolof. mais daal ku dem foofu di leen fa fekk particularité bi nag mooy xale yi nga xam ne la du benn médecin rek moo leen di faj ay spécialiste ñoo fi nekk mhm. te c'est tout un staff. ñoo xam ne dañ leen di jàppale ci wax bi orthophoniste nañ leen jàppale ci doxin bi ak yaram bi muy psychomotricien ergothérapeute psy pédopsychiatre mooy docteur bi déjà moom moo leen di suivre euh, am na itamit euh, éducateur spécialisé yaa ngi foofu oh. assistants sociaux yi ñëpp a ngi foofu donc spécialiste c'est tout un staff yoo xam ne vraiment mot nañu au moins dix spécialistes ñooy nekk ci xale yi donc foofu am dina am xale yoo xam ne dañ fay yendu am na ñoo xam ne dañ fay dem di ñëw donc xale yi seen particularité yi tamit mooy mënuñu dem ci école normale yi il faut ñu dem ci ay école spécialisée bëriwu fi déjà centre pédopsychiatrie yi rek ñett lañu fii au Sénégal waxuma Dakar rek mais Sénégal donc te ñoom ñëpp ñett ñëpp ñu ngi fii Sénégal euh, ñu ngi Dakar muy Fann hôpital Fann mooy bi nekk tamit Thiaroye hôpital psychiatrique de Thiaroye ak hôpital jam Diamniadio am na bien fo installé wu demande bi moo ëpp mhm. li leen mën mhm. na jàppale métti Euh, jafe na rendez-vous yi dafay sorianto ndax tamit ñi fa nekk kese mënuñu di jël ñëpp en même temps xale yi seen njàng dina compliqué parce que ci ay centre spécialisé la ñuy dem centre spécialisé yi en général c'est privé te ñoom tamit ñu fa nekk c'est de spécialistes yoo xam ne ñoom ñoo xam xale yi nañ lañ leen di jàngale mënuñu am comme en enseignement général bi nekk fii li tax may insister ci jàng bi en tout cas ñun COPEX période bi ñu toll nga xam ne après Covid 19 bi am nay conséquences yu métti ci parents yi ak xale yi. Oh, loolu la ñu seetlu tëju bi métti woon ak euh, réalisatrice bi waa kër gi ñu ne nañ leen woo. may leen temps d'antenne mu ngoog métti woon na torop ci parents yi. Mhm. xale yi moom waxatuma ko parce que xale yu mel noonu nga ji xëy rek tëj leen. xale yoo xam ne dañoo am seen ay habitude mhm. mooy li ñuy wax ñoom dañu am habitude yoo xam ne surtout les enfants autistes. Mhm. bu ñu xëyee war a jàngi tous les jours. geste bi la ñuy def geste bi la ñuy def. ba heure bu ñuy rek lañ xam moom la ñu xam. Mhm. nga xëy rek teg leen ci kër ne duñu jàngi war a def ay gestes barrières takkal leen masque tout ça c'était compliqué donc même parents yi ci seen bopp dañoo mujj di craquer parce que mënuñu toog xale bi di yuuxu di kii ci seen kaw duñu mhm. mën a comprendre donc daf leen di perturber ñun thérapie bi ñu defoon ci suñu biir mooy dañoo ubbi benn groupe WhatsApp boo xam ne dañ ciy waxtaan ba dugal ci spécialiste yoo xam ne bu benn parent sonnee moom mu jël parole. wax ak ñu expliquer ñu ne nii ak nii ngeen di doxalee xale yi. Mhm. di gërëm bu baax vraiment duma ma ko bëggul ku koy tudd mais dinaa ko tudd maîtresse Céleste. Mhm. moom centre bi nekk fële Céleste la tudd. Euh, actuellement elle n'est pas là dafa tukki waaye ba tey dama ko dugal ci groupe bi lu ñu soxla ba démb. Mhm. waxtaanal nañu expliquer parents yi dalal leen. gërëmaale madame Fall itamit di psychothérapeute familiale nekk fan ndax moom moo ñuy jëlal parents yi bu parents yi jaaxlee. te ñoom loolu yëpp gracieusement lañ koy def. suñu jàmbat nag jamono jii ñu toll nii mooy parrainage u xale yi xale yi dañu war a jàngi Eva Tra maa ngi leen di jël en témoignage xaw ma en témoin nu ñu koy waxatee ci mm-hmm. wolof mm-hmm. ne jaaxle nañu ba fi jaaxle yam mm-hmm. ndax xale yi tëju nañu école war mi ngi war a ubbi gouvernement bi joxe na ay inscription normalement c'est au mois de novembre ou mi ah moyen mooy tax xale yi jàngi très bien te COPEX amul moyen boo xam ne war na jàngi parrainage. d'accord di tàllal loxo nag vraiment doomu aadama comme on parlait d'entraide sociale. de mm-hmm. solidarité. Mm-hmm. ku jël fi benn doom benn borom barke bu jël fi benn xale ne ko dina defal yàlla defal boppam defal doom euh, xale yi defal seen parents. maanaam tey tey ci gàttal ci gàttal. mami li ngeen ñëw. Mm-hmm. ne man may nekk marraine tel bi tel voilà. sachant que kooku mi ngi ak ay waajuram. wallaay mais seen loxo jotul seen jotul gannaaw nga dikk nga ni da ngay jàppale benn xale mu ngoog baara dikk ne man may jàppale tel xale keneen dikk ne man may jàppale tel xale ah, suñ ko defoon dëgg dëgg ñi ñuy ah. seetaan am ñu ko yàlla mën la te am na ñu yaakaar ne incha allah di ngeen woote Euh, joxe ci seen xalaat def ci la ngeen ci war a def wax mhm. dëgg yàlla mhm. Mhm. moo tax Mia seen thème bi dafa am solo lool macha allah dafa am solo parce que gis nañu ñoo xam ne ñu ngi réagir barki Dembo Ndiaye bi ñu fi invité ñi nga xam ne ñooy jël ñi nga xam ne seen xel dafa xaw a dem tuuti rek ma <coughs> waxee ko noonu am na benn maire bu nekk ca Médina daf ma yóndee ñaari junni ma wax ka mm-hmm. mu ne ma barewul jarta wax ma ko du ma wax sa tur waaye danaa xamal nit ñi ne mm-hmm. yóndee nga ma ñaari junni pour ma joxal la ko ñoom ci noonu laa ko jëlee yóndee ko man ko xeebaluñu la ko kon ba parrainage yooyu bu ngeen ñu mm-hmm. ci mënee dimbali dina baax loolu yaa ngi wax ci sa biir wax mami mu wax xale yooyu seen prise en charge nañ ci taxaw dafa jafe lool métti na te gis nañ ne itam en Afrique tey soo benn doom boo xam ne autiste la. wala trisomique la wala yeneen ak yeneen parce que xeetu. Euh, feebar yi ñuy judduwaale dafa bare. bëri na léeg-léeg doo xam tur bi sax mais lu existé la. soo ko amee en Afrique doy na waar. sa euh, lendemain xale bi. xamuloo ko tu es dans l'incertitude parce que doo am ku la jàppale mhm. suñu ay politique prévoir ñu loo xam ne mhm. daal xale yooyu dinañ leen dimbali mhm. itam suñu xel dafay dem ci waa ilaago yi ñi nga xam ne dañu am itam ay jafe-jafe ci dox seen euh, seen insertion noonu la dee dafa dafa xaw a jafe parce que itam prévoir ñu ko tey boo moytuwulee mën naa am ay diplôme yu bare pas-pas yóbbu ma ci waaye damay mujj des sama loxo yaay parce que vraiment lu yàlla xam mm-hmm. doy na mm-hmm. kon yooyu yëpp nag ñuy ñaan yàlla ñi nga xam ne lu ñu dégg rek faj ko mm-hmm. ñi nga xam ne itam ñu ngi ci gouvernement bi rawatina nag man toujours dafa am ku may interprété euh, ku may interpellé dina ne ku ko yàpp laa soxna Mariam Faye Sall lu mu leen jàppale doyul donte mënta def lépp mu bàyyi xel ci COPEX mës na mës na digaaleeg yéen ndax soxna Mariam Faye Sall man maa ngi koy interpellé fii dëgg la euh, ci yaakaar am ci yaakaar bu rëy ne man waaw dama tàmm di wax daaw dama newoon sama challenge Mhm. avant Covid bi. wax ko soxna Marième fay Sall la. ak xale boobu ñuy wax euh, kii Wally Seck xaw ma ndax war naa ko sama xel dafa ah, ah, dafa dem ci moom. Ah, parce que dama dégg kuy solidarité sociale ak président Youssou Ndour. gis nga damay wax toujours kii gis nga nu fa demee. maa ngi doon yegg si si moom sax grâce à ses amis ak waa àggali ndax defoon nañ ay lettres ba yónnee ko Birane Ndour. Birane Birane. pour mu gën a ñu gën a mën a euh, accéder. fii waa TFM mais du tere maa ngi fii ci kanamu caméra bi dama leen di tudd dama ne woon mhm. sama challenge ñoom ñett la ñooñu la mhm. te man wóor na ma ni ma toogee di wax ak yow Eva convaincre la eh, convaincre mami ak sëriñ bi dinaa mhm. convaincre présidente la première dame mhm. convaincre Wally Seck convaincre président Youssou Ndour mhm. woo nga ñett ñi ku ci nekk ñoom ñëpp voilà mu ngoo <laughs> woo naa leen te xam naa ne bu ma leen gisee dinañ ñu jàppale ndax ñu dañoo soxla ku ñu puus kese voilà mu ngoo <laughs> alhamdulilah wallaay donc toujours loolu laay wax dama ne bu ñu leen gisoon rek dinañ ñu jàppale. dinañ ñu mën a pousse dara au moins xale yi mën a jàng. Eva on est confronté à de sérieuses difficultés. Mhm. ndax tey xale yu mel noonu moyen mooy tax ñu mën a kii wax nga ko mhm. léegi. Mhm. ndax on n'a pas prévu grand chose. pour ces enfants là prévoir ñu loo xam ne bëri na pour handicap en général. muy physique muy mental. prévoir ñu ko. lu bëri ñi ko fi def sax ñi ngi commencé di kii nank nànk parce que ñun on est en de taper sur la table mhm. man loolu laay wax nee naa man rusuma ci ragaluma ci te duma ci tàyyi yi ah, ñu gis la voilà dañuy romb gis voilà mu ngoog je tape sur la table te fu ma dem ñëpp am nañ sax ay vraiment ay nit ñoo xam ne mhm. wax dëgg yàlla ils ont été sensibles mhm. euh, à la cause ñu ñuy jàppale ci yenn yi mais instant yi dafa am foo xam ne tollu nañ fa waaw dama doon ne ñun jóge nañ ci point A ñu ngi ci point B alhamdulilah dañoo bëgg dem ci point C. Mm-hmm. point B bi mooy xëy na xale yi bi ñuy juddu métti woon na ci seen parents yi ba yenn yi mm-hmm. mënuñu ko woon. mais léegi alhamdulilah accompagnement bu ñu am. Mm-hmm. sensibilisation bi ñi parents yi ci seen bopp ñu ngi leen di won naka la ñu mën a toogee ak xale yu mel noonu. ci kër parce que nga xale sa doom juddu mel noonu tu es désespéré. déjà balaa ngay nangu sax ne sama doom nii la mel. nga nangu ko accepté ko rek c'est tout ton problème. te boo ko accepté ba voilà sa propre famille bi la jege. mu ngi noonu du ñu ko accepté. mu ngi noonu famille ba ngay sëy. Mhm. commencé di la sànni ay baat. Mhm. mbedd mi commencé di la sànni ay baat. lu nekk nga commencé yow di nëbbatu ak sa doom. Mhm. bu fekkee ne nag doo waajur bu xam si ngay teg say tànk. nga commencé daw. commencé di muulu xale bi di ko teg leneen beneen problème ñëw mooy que mënuñu leen jox jànk yi ñuy jox ñun suñu doom yi parce que ñun ñi leen jur xamaguñu leen ba di leen Euh, j'embrasse bébé Daba ma mhm. fille. elle est ah, ah, membre xeetu ah. euh, Ali Boy. na ñu koy woy macha allah waaye ñoom itam koo ci xool mooy xoolu yaayam ak ay mbokkam ñoom ñooy lumière yi foofu la jamono <laughs> toll. mais li ma mi wax lay taxaw. dëgg la euh, am na sax jànk yoo xam ne boo leen di tegtal. Mhm. boo moytuwulee dañuy mer. Mhm. ne gëmewul nangam gëmewul li fekk. ndéem kooku dafa judd soxla toppatoo. faaw ñu wax la na nañuy nekkee infection yi gaaw na ci ñoom euh, feebar gaaw na ci ñoom boo leen toppee doo leen guidé duñu du ñu jëm kanam dañuy des gannaaw parce que ñoom itam dañuy nekk li nga xam ne moom lañ leen jox ils deviennent ce qu'on leur donne kon bu dul loolu du mm-hmm. dem man yi àggalil macha allah dañu am seen monde bopp mm-hmm. te monde boobu ñu am ñoom boo leen ci toppee sax ñoom ñoo lay jox mbégte c'est vrai mais il faut nga fekk leen ci il faut nga xam ko te adduna bi ñu nekk nii. Mhm. lépp lu fiy dox xaalis moo koy doxal. Mhm. ci rawatina ci Sénégal. mais li may faral di wax rek du ma ci tàyyi waaw dañoo nekk ci réew moo xamante ne moor ni bala fi dee mm. ñu suul ko armée li ñàkk yërmande mu dekkee bàmmeelu ku la ñee du la dolli xajjatoon xajjatoon am ngeen ko mën ngeen ko fi sabilillah ñu ko mën a ci dëkk bi très bien man moom maa lay jox koo xamante ne boo paree fii léegi day paree ne benn xale Ousmane Noël Dieng par force euh, fi nga toogee envoyé message by force moom moom day social kaw la Ibou Cissé ma jàkkaar lool na li may wax mm-hmm. Mm-hmm. Ousmane Noël Dieng envoyé ma ñaata xale ngay parrainé mm-hmm. loolu laa bëgg a xam léegi soxna ay dara dina ne xale très bien ak ñeneen ak ñeneen ñu nekk ci dëkk bi. ñoo xamante ne nii parce que tey ay parrain la ñu ut ak marraine. Euh, chaque jour ak li ñu fa taw feex jox ko dañ leen di Eva dañ leen di jëm baaraam. xarjatu na joxe numéro mami dañ leen di jëm baaraam. Euh, Médoune jëlal naa la ñaari xale yoo pare ne tey rek mu xam ñaar <laughs> benn man benn baara la fi ñett sax laa lay defal ak benn ndooy baan euh, Ousmane Noël jee ñaari xale soxna ay dara maa ngi ñëw léegi nii su ma wàccee ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne nii man xam naa ne mën nañu ko te am nañ xolub def ko mm-hmm. Tahirou Sarr interpellé ko directement Ah, ah oui ah lu baax la te mu ngi ci mm-hmm. dëkk bi mi ngi koy def. Diop si Tayru Sarr Papa Diop si. waxal ak moom directement fii nga toog nii. dëgg la moom itam mu yónnee. def ci xale yi ndax mi ngi joxe ay million ci leneen ak leneen lu ñuy woote ci télé yeeg ci social. te lii nii ci farata la bokk. Mm-hmm. Moustapha Diop ministre. Mm-hmm. Mm, dinañ juboo pareegul ci lim bi dinañ juboo tey. non mami mami jox nañ ko kii bi. jox naa la ñaari xale. yow rek mu xam bi nag Tayru Sarr jox naa ko ñaari xale. man gis samay soppeeku ku ci bu dix mu baax. Mm. pare nañ ma pareneel mareneel ma dix xale. d'accord loolu rek laa ñaan. Mm. léegi nag yeneen yi ci des moom dinaa lay borxal ay tur. incha allah doy baal Médoune Seye Tawfekh. mais yàlla naka cherché dix. cinq la. Ah. Ah. ñooñu amagum naa cinq. Ah. Mm-hmm. Tayru Sarr moom jox naa ko vingt. léegi ñeneen ñi ci des yónnee leen. ma a numéro téléphone laa lay joxe. joxe ko joxe ko 77. ndeysaan. 77 bind leen ko kenn waxu nag ngeen woote xaaral xaaral xaaral ma lancer le message. waaw euh, bind leen numéro bi. kenn waxu leen ngeen woote naan ko soxna si ñu ngi lay jaajëfal kenn waxu leen ngeen naan ko massa massa seddal na ab góom waaye faju ko mhm. li koy faj mooy jooni jooni mhm. man mii génnee clinique xam naa ne jooni jooni mooy faj soxla dañu ne ngeen làmb ci li leen yàlla yónnee ngeen yor ko ki war a dundees ko bu ko yàlla joxee wàttu da koo séddale loo ngeen def nii tap tap tap tap fi ñu ko yónnee yomb na mm. mu dugg ci famille dem ñu mën ko récupérer dugal xale yi novembre naka yàlla def mais dañuy remercier itam TFM ah. waaw wax dëgg sax dañ fi toog mm. waaye lii rafet na te am toujours dama koy wax remerciement et aussi pour euh, euh, madame Kanté bu ren Fabiola madame ah, taxaw madame Kanté sama madame Kanté la madame <laughs> sëy borom tawfeex jël na li ma ko jox waaw nag baax na alhamdulilah mbirum sëy kontaan nañu yal na yàlla fay te barkeel mm-hmm. Mm-hmm. madame kante bu Reine Fabiola mm-hmm. pourquoi may taxaw ci moom wax nga ko sànq xale bu ñu dikkee ak euh, yenn ah, euh, difficulté yenn handicap yi mm. euh, doo bare mm-hmm. au Sénégal ku leen di jël mm-hmm. moo tax elle dañu koy ñaanal moo am école bu mag a mag mm-hmm. gën a gën a am ay ay ay ay formateur ak formatrice parce que bu boobaa dina mun a dimbali xale yi ndax école am boobu nga gis da ngay yóbbu xale mu dalal ko classe d'accueil pour topp ko xam fan la koy exactement fan la koy yóbbu mm-hmm. uh-huh. kon ñoom euh, maîtresse Rose maîtresse Awa mm-hmm. madame Kanté madame Faye ñoom assi ñoom ñëpp monsieur et madame Kanté monsieur et madame ah ben oui <laughs> xam nga sama madame Kanté spéciale la parce que dama naan euh. dama naan sama bàjjenu doom la ah, yow mii di wax sama doom mi ngi jàng foofu ci école am. dëgg la école Athéna xam naa bëggul ma wax ko fii. dëgg la te su ma demee daf ma nekk du fay. dëgg la sama doom moom bu ko naree jàpp ci lu fa ah. ci ci lu fay. bëggul ma wax ko nag mais dinaa ko wax tey. c'est une opportunité pour lui dire merci. pour la remercier ba pare am na am na classe spéciale boo xam ne pour xale yi la. xale yi may wax nii école am fa la ñu nekk. dëgg la donc madame Kanté dafay defal yàlla. Mm-hmm. di jàng te c'est une école. d'excellence. c'est vrai parce que école d'excellence. ak euh, nu mu mel mënoon na bañ a def social. dëgg la mais elle fait de très bons résultats macha allah. ñun teg nañ ci seen ba gis nañ ko. bu baax di ko remercier di ko féliciter macha allah sama doom fa la nekk sama ñaari doom. waaw sama doomu sœur ak ñi ñoom ren sax am nañu BFM. ak ñoom ñëpp kon vraiment madame Kanté ñu ngi koy encourager. Mhm. Euh, parce que bu ma bu ma juumul ca école ba. su ma mhm. juumul ba tey. Mhm. gis nañu euh, defe naa un enfant trisomique bu fa musu am examen. j'ai vu. dama <laughs> fay dem. Ah, information bi loolu la woon merci pour à, à madame Kanté aussi te ñu ngi leen di encourager bu baax. jërëjëf ñu ñu delloo Ndiaye kaddu gi. waa xam nga social dafa yaatu parce que lii ñuy def rek social la. Mhm. parce que euh, foog naa wareef. Mhm. foog naa ci thème yi gën a sociale ci dëkk bi la bokk. Mhm. parce que day fekk nit fi mu nekk ak jaaxleem conseiller ko conscientiser waat ko tegaat ko si yoon. te loolu dara gënu ko doon social. parce que social du jël rek nga jël xaalis jox ko nit ki sociale mën nga mën nga waxat nit ki ba tegaat ko ci yoon mm-hmm. ba mu euh, euh, dundam defaruwaat mm-hmm. orienté ko orienté ko mm-hmm. loolu dara gënu ko doon social di nga gis koo xam ne mën nga ko jox xaalis pour mu liggéey bu subaa xaalis bi seey parce que amul woon orientation bu baax mais tey am na koo xam ne tey mi ngi nekk fi mu nekk di wax wax ju baax wax joo xam day dellusiwaat nit ñi nit koo xam dafa naroon xaru nit koo xam dafa waroon jël gaal nit koo mm-hmm. loolu social la parce que euh, li tax tem yu mel nii di am solo mm-hmm. parce que comme soxna si seen association bi mm-hmm. fi ñu nekk làqatu kenn xamu leen wala ñu bari xamuñu leen bokk tey ñu ñëw foo xam ne àddina bi yëpp dañ leen di xam nit ñi parce que boo déggee ñu ne wax rek kii tudd ay nit comme Madoune Seye Tawfekh moom muy wax noonu ñëpp dañ ko xam ci social dañuy def thème ci rajo bi nit oote ne man dama am problème nangam nangam mu ci tàng mu ne jël naa ko en charge te loolu def na ko defati kon tey wanewaat na preuve bi mhm. tey am na ñoo xam ne euh, du ñu dimbali fu caméra nekkul am na foo koo xam ne fii day lu ñu woote ci télé yi mu joxe ay millions pourtant village am village nataal am lakk na ba dëkk ba yëpp seey ñu ñëwee sollicité ñu bi ñu ko woowee téléphone dana lool sama yoon nekku xam nga tey am na euh, boo gisee am na ñoo xam mën nañ leen di joxe exemple am na koo xam ne gaañu na mi ngi nekkoon aseg naam tudd Maysa Ndiaye mm-hmm. Mm-hmm. Maysa boo gisee tout le temps ñuy joxe exemple ci moom daangal ma la dëkk mm-hmm. jour biñ koy yóbboo ba koy denc dama ne jàkka ji ñu ko indi di ko jullee moo ko tabax. est-ce que. courant bi ñu taal bi ñu koy sang. moo jënd ay poto mu jógee ca dëkk ba ba ci village am. moo jënd ay poto téléphone indi ko ba ci dëkkam armeel yi ñu ko suul moo ko miire. tiwo yi indi forage ndox mi ba ndox mi ñu ko sange moo ko fa yóbbu. kon xam nga kooku tey. Euh, bu ko neexoon mu ne man maa ngi asag naa nekkoon directeur exploitation bu ma mhm. neexee du ma sax tegat sama tànk foofu mhm. te pourtant ay moromam ñi ngi fii si dëkk bi mhm. nga xam ne xamatuñu sax dëkk yi ñu dëkkoon te day am ci famille yi mhm. léegi ñu bari boo gisee famille bëri sawatuñ def social mhm. da gis benn famille kenn di jàng ñu bool liñ amoon yëpp di ko jox mhm. bi mu jàngee ba réussir dafa mel ni mosu leen woon xam kër yi dañoo xumb de day fam fuuy fàtte fooleeku torox ba ne tot nag faatu ñu koy robi a ma maam yi lu ma ciy dolli xam nga moo tax nattu yi nañu ko muñ que lu la dal lu ne wallaay dangaa jàkkaarlu la keneen dangaa jàkkaarloo la keneen am na ku la gën a métti li fuuf lu ne na ci kër yi xam nga xam nga waykat yi way nañ lépp fois mm-hmm. dane waykat ba dane muñal li la dal yàlla day nattu jaam boo muñal li la dal yàlla wan la yoon ba doo juum mm-hmm. xam nga baara dafa ubbee lu am solo mm-hmm. loo xam ne buñ ko fàtte bala ngay jàll ñaan dafa metti dëgg kenn ki ma bëgg ci sama àdduna muy jur sama yaay daf daan wax man faal du ma ñaan boo ko ne lu tax mu ne boo ma mayee ma dee boo ma gàntoo ma ruus démb rek maa ngi ciy tooñ ko sant faal yow faal njaga yaaram yow faal yaaram maa ngi lay nuyu euh, ñaan dafa metti laaj dafa metti te ñun ñii laajal social xam nañ ne laaj dafa metti léeg-léeg nga woo koo xam ne da nga ko doon respecté seen ko muy def nga ñu tuddee ko def kat lu baax nga woo ko wax ba eggal bala ngay pare mu coupé la karaj booba caméra yi nekku fa déedéet yow rek yaay wax sa baat rek dégg bala ngay pare mu coupé la woowaaleel euh, Mamadou Kassé monsieur Mamadou Kassé euh, sama xuloowaale directeur SICAP sama xuloowaale wuy ba <laughs> maa ngi pare wala léegi yow moom ñaar laa lay jox yéen itam waaw xam nga ba tax na. Mhm. am na ci ñoo xam ne Eva même bu leen tudd boo leen tuddul seen tur. dëgg la da ngay toog ci télé bi di wax. ñu yónnee la ca saa si lañu la war a yónnee Adja Fatou Samb bu lag mhm. moom itam ñu ngi koy xaar ndax xam nañ ne dina marraine ci xale yii. dëgg ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne xëy na suñu xel sax. Mhm. ñëwagul ci ñoom mais wóor na ma ne bu ñu jógee fii dinañ woote. gis nga li may faral di wax rek voyage booy dem te doo yóbbu bagage à main. bala ngay egg. jal bi jalaa ñoo mm. bu jal bi jalee nga jal bu jal bi jaluwul doo jal amul sens mm-hmm. ki ngay defal te li nga koy may fekk nga mu am ko ba pare kooku amul sens mm. tur ba ngay wut ca wetam jaru ko nañu doy loolu ñu suñu borom may raxas setalul ngëneel ngëneel ca yàlla la kenn ku nekk la ngay baaxee mi ngi ci yow ku ca nekk boo ndawalee sa juddu ba jàpp ne yow doo dara na la wóor ne la la yàlla defal am na lum la defal lum defalul sa morom nga di ko dabu ci sa moroom jàpp ne dafa yoruk fal wala dafa toog ci place bu la jomb ba tax nga jël sa ay millions dem di ko jox faalewu la gisu la moment bi nga koy jox la gis fa jógee gisatu la mm-hmm. mais kii dafa toog yor ay xale mm-hmm. yooyu ñu yor jombul kenn ci ñun am na ku ëmb fii ñu toog nii di dugg neuf mois am ma ngay jënd mbub mu riis di denc naan su ma wasinee ma ngay jënd poti xeesal di tegale ma ngay waxaale baas bu ñu décoré xamagoo lu la yàlla di may. yal na ko yàlla defal jàmm mais yal na ko yàlla defal jàmm mais xamagul lu ko yàlla di may. dégg nañ la bu baax parce que day yàlla moom moo yor ay mbiram di ko séddale te siècle bi ñu dugg mu génn ci ay miracle am. mën nañ judd te ñii fépp la ñuy juddoo. te la ñuy indi ca famille ba mën a goo ko xam ndax faaw nga sonn ci ñoom pour mën a récolter la nga ca mhm. def. mami te nga wax jigéen ñi nga xam ne itam ñoom la yàlla dénk loolu ñu góorgóorlu Mm-hmm. du mm-hmm. pour wax leneen sax waaye jigéen dafa sonn mm-hmm. moo tax may wax ne teraanga bu dee danu koy joxe ci biir kër nan ko jox taaw bu jigéen bi ne moom mooy yaay dana jël joxe ko boo amee doom lu la bàyyi gunge gunge gunge toi tu es mère. Mhm. yow yaa xam vraiment euh, li li nga bëggal sa doom yow rek yaw yaa koy xam. xarjatu ma eh jox te kër yi mhm. dañuy xumb ba tey déggoo ma de. da nga tudd ba tey kër yi dañuy xumb. da nga tudd doom yooyu noonu. waaw man dama ciy jël benn nit delloo ko njukkal. Mhm. ba xam nga man nga man dara frege ñeentewu ma. yow mi toog <laughs> man pendaloo jëlal loolu ah. pendaloo sax daj waaw pendaloo moomu moom itam man nga Italie dinañ ko ci woo man xam nga nam soxna kati jox Samba waaw bu Amadou Samba waaw kañ yaayu euh, Sira aji bu Sëriñ Fàllu yow itam maa ngi la ci xam nga Eva man nam soxna Bali Mbàkke mun taxaay yaa booy maa ngi ci yow moo yow tey tey tey kenn du tëdd ci blal tey ma maa ngi ñëw <laughs> maa ngi ñëw xam nga la ci yow laa jëm supp du ma tax a aayoo nee ne ku demul maternité mm-hmm. man lu may wax dama koy gëm mbaa ma noppi. Mm. danga wax sànq ci ñi nga xam ne yàlla daf leen a may doom ju mel noonu. Mm-hmm. yaay yi moom dinañ leen delloo njukkal mais danga wax ci baay yi nga xamante ne sax. Mm. dañu koy am ne pëccet daw. Mm. axankay ah, nga wasin ko rek ñu daw. wax nga dama ciy delloo njukkal ku ñuy wax Imaam Diagne. maxtaar sama baay ndax sama baay maxtaar ndombe la tudd <laughs> maxtaar ma della ci delloo njukkal ndax gis naa bi nga ci am fa nga ko teg ak na nga ko fonkee kii du ma wax ci moom parce que Sénégal lu ude wax ci béy bu feebar ñu ne derba la soxla mm. te moom xam na ne bu émission bi jeexee tak ma def ko li ma koy def ci plateau bi jax na <laughs> da koy wasin sax jëkkër daw bàyyi laak te muy dëgg mami te doo ko gis doo ko dégg du ko dundal du ko mm-hmm. wodd du ko sàng du xam faj ma du xam leneen dëgg la yaay yor di nab nabi di di daanu di jóg di daanu di jóg di daanu mm-hmm. te tekkee nga ca loxob suñu borom mm-hmm. ndoy baan dafay faral di wax mu ne moytu leen li ngeen di ndawal mooy nekk lu mag la ëllëg soxna Xarjatu bismillah ah li ma li ma bëgg a wax ci li ngeen wax nii yëpp dafa sedd sama xol sama yaram sax dafay daw parce que yéen dafa mel ne yéen a ngi dund ak ñun li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee chaque jour les mamans sont braves Eva man en tout cas ñi ma amal affaire ñi ma nekkal mhm. toujours dañuy toog di ma remercier madame Thiam madame Thiam ma ne leen man euh, su doon sama sago su ma amoon man boo li ñëpp am du ñu dem laaj feneen. déedéet tegal ko foofu. boo amoon sago du ñu dem laaj fenn une nouvelle marraine peut-être. <laughs> salaamaaleykum. salaamaaleykum. <laughs> salaam. waa ko kan waaw. man la Rama sëru Babacar Paris laa lay woowee. Babacar Mbaye Khalifa. eh Khalifa Mbaye kooku sama xaritu xol la sama càmmiñu bopp soxna Rama Mbaye. wax wax nga dëgg <laughs> ça va Eva. ça va alhamdulilah. alhamdulilah seen euh, thème bi ngeen joxe tey am na sens trop. dëgg la. parce que dama ci am. ah ñu ngi koy nuyu. waaw waaw nii di leen dégg côté de moi. <laughs> moom euh, dafa am trisomie 21. oui. te ma xam ne li ngeen di wax mu laal ma nag parce que euh, li ngeen di wax léegi lu am solo la parce que social dafa nekk loo xam ne ku ko mën a ku ko mënul sax war nga ko def te euh, sama xol moo fees moo tax mënuma sax wax trop parce que li daam bi wax léegi c'est très important man ci association bi laa nekk fii à Paris xale yu yore trisomie yi donc euh, man ci laa bokk ci association bi. Mhm. donc sama doom il est dans une école spécialisée la ne mhm. donc ñu leen di toppatoo bu baax a baax wax dëgg yàlla. Mhm. manqué wuñu dara fii. moo tax bi ma déggee léegi mu ne ku bëgg ku mun a pare ne man premier en man man ne naa boole naa ci sama. macha allah ndeysaan te dama kontaan moo tax ba mënuma wax parce que lu ma touché la daal. ndeysaan daf ma touché. moo tax ma wax mais nag xam naa dinaa jël sa numéro téléphone ci suuf. Mhm. mais man en premier. man ci parrainage yi ci laa bokk. Mhm. ndeysaan jërëjëf jërëjëf. waay mbay parce que sama daf ma touché sama doom a ngi nii à côté. Mhm. mais lu ne def naa ko ci moom. te tey elle ans maintenant. macha allah donc elle toujours ak man. ah et manqué wul dara wax dëgg yàlla. yàlla xam nga yàlla boo leen toppatooyee rek. yàlla toppatoo la. wallaay dëgg la. wallaay dëgg la macha allah mbay mm. kooku jot ko dina ma yomb lool ndax xam naa fu may jaar. ñu mm-hmm. waa centenaire yëpp. Mm-hmm. ay mbokki xalifa mbay. di nuyu aji fa aji faatu ma nga London man nag say tey sax damay jël ay yaay yoo xam ne nekkuñu fi <laughs> di nuyu aji aji faatu ma nga ma nga London macha allah moom itam ñu koy xaar rek euh, ci marraine yi ndax xam na bu baax réalité bi nuy waxtaanee Xarjatu Seydou yow la ñuy delloo kàddu gi voilà may di remercier vraiment cette dame la mhm. euh, ku dégg xam ne xam na li ñuy wax mhm. macha allah boo ci nekkee da ngay comprendre donc euh, yal na yàlla motal yëpp yàlla def doomam mu dund lu yàgg yàgg yàgg moom itamit mu fekkee lépp parce que ce pas facile donc je disais que li ngeen di wax mhm. daf ma touché parce que yéen a ngi mel ne ci biir ngeen nekk mhm. euh, c'est pas facile de demander comme lu mu wax tàllal mhm. loxo di ñaan yooyu métti na mais man du sonn du tàyyi parce que comme nu ñu def nii ñaanaloo ko pour def ko sa poche wala pour leneen mais li may wax il faut être utile à sa communauté. Mm-hmm. c'est vrai il faut mooy lii ñuy wax. dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi ko gën. jàppale mm-hmm. voilà jàppale nit. Mm-hmm. xam ne nit ki am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla ils sont là pour ça bëgg nañ dimbale. mais amuñu fu ñuy jaar wala xëy na peut-être yóbbuñu ko. te gàttal loxo jëlal ki ci ligne bi. Ah. nañ ko wax salaamaaleykum allo. allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa ñu ngi lay fay. ma bëggoon intervenir ci émission bi. yow rek la ñuy déglu foo ñuy woowee. maa ngi leen di woowee fii euh, Yoff Layeen. Yoff Layeen. Uh-huh. te Ndeye Sawlu Thiaw. Mm-hmm. Thiaw. Mm-hmm. donc di rafetlu émission bi surtout seen invité bi di soxna Khadijatou Thiam. <laughs> dëgg. vraiment mu nekk une euh, très grande dame boo xam ne voilà. elle est la cause des enfants mhm. mhm. ah. moo tax ma ni faaw ma wootee. jërëjëf c'est vrai jërëjëf. waaw <laughs> ah, dem na ah, merci beaucoup soxna si dem naa ca madame <coughs> Kanté ren la bëgg jël parole sëgg fa di jooy booba miinu ma. nde ndeysaan boo demee ba miin leen ndax xam ne vraiment ay lumière lañu dawtaat ay lumière lañu ñu delloo ko kaddu gi de. waaw donc voilà kon may wax ne euh, en général. Mhm. pour montrer que. pa euh, parents yi mhm, maman yi. Mhm, mhm, épreuve entre guillemets lay nekk. c'est vrai parce que yow xale bu mel noonu yombul. surtout ci société bi mami soxna mami dugg na ci léegi. yàlla regard de l'autre. mooy la bët bi la nit di xoolee. am na loo xam ne def socialement euh, familial même sax du point de vue familial am na. couple yoo xam ne tasaaroo nañu ndax lu mel noonu mhm. ay belle famille jiñ nañ ko ci ku jigéen ki am na parent papa yoo xam ne abandonné nañ seen mhm. euh, kii yi seen famille ndax xale bu mel noonu belle famille lu ne daal da nga koy dégg mhm. lu ne di ko dégg donc moment yi toog ak papa am na ay papa yoo xam ne wax dëgg yàlla macha allah ah, dañ leen di déglu ñu leen di mm-hmm. delloo njukkal mm-hmm. ci suñu association bi mm-hmm. dañuy ñëw dañuy fekkee ñu ngi ciy jàpp bu baax a baax a baax ñoom ñëpp bu lim daal da ngay juum mais vraiment am na ay papa yoo xam ne kenn amul ñu leen di wax donc parent yu mel noonu nekk ci épreuve nekk ci euh, xare la ñu nekk ndax xale yu mel noonu c'est du lourd pour toppatoo leen xale yu mel noonu da ngay dem ba yow da ngay fàtte sax yeneen doom yi nga am beneen fratrie bi nga am beneen xale yi mag ñeeg rakk yi da leen di mhm. fàtte soo sàgganee di leen di fàtte boo deful attention ndax sa énergie yëpp la ñuy jël prise en charge réelle voilà mu métti dañuy nekk c'est c'est pénible mhm. au début mais boo demee ba miin ba mhm. xam comment ça se passe di nga xam ni ñu leen di toppatoowee di wax parents yi chaque à chaque fois que yàlla moom moo xam li tax mu dugal ko ci famille tel mhm. famille Eva famille mhm. kii wala famille mami mhm. parce que xam na ne mami si elle n'avait pas les épaules solides du ko ko jox donc moom moo leen koy jox ñu jaamu ci yàlla te boobu ba tey maa ngi gën a féliciter encore parent yi nga xam ne man ñoom laa jiite ndax vraiment ay parent yu am fois lañu ñu am Pastef ci xale yi Eva man damay namm toujours bu ñu bu may ne dama bëgg nga parrainer wala nga nga jàppale ma ci association bi nga ñëw bu ñu nga ñëw ci activité bi nga ñëw xool pendant une heure de temps c'est vrai nga gis leen ñu dajaloo foofu ak seen parents mhm. mhm. wallaay Azim boo fa génnee di nga xam ne képp ku doon def social defuloo mhm. yaa ngi door a def social fii ba xale yi dajaloo rek ba seen parents yi nekk nga gis xale yi dans leur moment yi ñuy def ak ñi nekk parent bi di daw fii xale bi mel nii yàlla bu mu doon xale boo xam ne bés boobu yëngatu na balaa nga fay génn di nga ne ndekete man mii defuma woon dara ci sama àdduna maa ngi doon door a def social ñu jëlaat téléphone waaw kay salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax. soxna Eva maa ngi leen di fay maa duggoon léegi. ah xam na Ndey Sawlu maa duggaat. Ndey Sawlu ah Ndey Sawlu Maxtaar bisimilah ah d'accord. kan <laughs> Ndey Sawlu maa ngi lay nuyu ah, ñun ñëpp. parce que mhm. man mii c'est une fille qui est trisomique. waaw Ndey Sawlu ndeysaan. et macha allah ba ma ko xamee métti woon mais Khadija elle était là ñu. <laughs> confort bi nga xam ne ñun ñëpp loolu la ñuy manqué. dëgg la ñun parents yi au début à l'annonce. Mm-hmm. c'est vrai. vraiment mu amoon ci taxawaay bu rafet. Mm-hmm. donc émission bi je pense que elle est venue à son heure. parce que mm-hmm. xale yi. dañu la entre aide sociale boobu. parce que tey sur le plan médical mais surtout sur le plan scolaire ñun parents yi dañ ciy dund ay difficultés yu metti mm-hmm. yu mm-hmm. metti sax mm-hmm. parce que xale bi tey day bëgg jàngi kon ay moroomam yépp te xam nañ ne ak seen déficience intellectuelle pour ñu nekk ci même classe te yeneen xale yi dafay xaw a difficile dëgg la donc il faudrait que ñu am vraiment une scolarité un peu spécifique boo xam ne ne nii moom lañu war a mën a am pour seen jàng deme noonu te souvent suñu dëkk bi fii loolu daf fi manqué lool lool mhm. lool. Mhm. Mhm. donc vraiment entraide sociale bi moom dina ci am solo trop. surtout ci population bi société bi mais surtout au niveau de l'État. ñu xam ne xale yi ils ont droit à l'éducation. c'est vraiment. voilà. merci beaucoup Ndeye Sawlu. Mhm. soxna Ndeye ñu ngi koy remercier. e li mu wax dëgg la balaa nga koy xam am sa doom. gis ne kii bu ko yàlla dimbaliwulee. gis da nga koy gisal ne subaam du mën a def lu bare. et ça c' est parce que booy jur doom. Mhm. yaa ngi commencé déjà am ay projet mhm. léegi na nga jur ko ci réew moo xam ni. xam nga ne euh, day ñëw des sa loxo. Ah, loolu nag moom metti na trop. Euh, metti na mooy li ñuy wax ne parents yi euh, dañuy dem. xale yi seen doole. dëgg la di gën a yokku. Mhm. parents yi seen doole di gën a wàññeeku. donc bu ñu amul ku leen encadré par exemple comme mhm. daam bi njëkk woote. te mu mhm. nekk en France. ne ñoom foofu vraiment ñu ngi leen di encadré bu baax di leen jàppale te fii amuñu ko. fan la ñu jëm. fu mu nekk nii foofu loolu mooy euh, appréhension wu parents yëpp. mooy njaax jaaxle ak parents yëpp loolu lañ lay waxtaanee ah man bu ma fi jógee wala bu ma fi nekk mënatul mënatuma kan moom mooy téyel sama doom. mais suñu gouverneur yi tamit ñoom ban tànk lañ taxawee. fa laa jëm léegi nag fu mu nekk nii. kër xale yi par exemple centre yu mel ni kër xale yi xale yi bu ñu demee foofu c'est de zéro ou bien deux ans jusqu'à douze ans. centre bi douze ans ñu arrêté dootuñu demati parce que tamit centre pédopsychiatrie c'est l'État c'est l'hôpital Fann donc ça dépend état bi lay dépendre ñu fay nekk ak staff beeg yooyu yëpp waaye ñooñu bu ñu fa jógee dañu delluwaat seen kër. parce que amuñu insertion fenn. Mhm. amuñu fenn fu ñu dem amuñu fenn fu ñu jëm. Mhm. un enfant autiste tey bu ko jàngal benn affaire boo xam ne six mois lay def wala un an pour mu dugg ci boppam. Mhm. mu toog te déjà sax tey xam naa ne bu ñu delluwaatee seen classe yi actuellement dina métti. ci seen encadrement parce que ça fait combien d'années ça fait combien de mois mm-hmm. ils sont restés enfermés alors ku mel noonu accueil mu amoon yëpp ñu koy jàppale que xale yi muy dem di ñëw ba pendant 12 ans léegi bu ñëwee ñu nekk amatuñu centre bu ñu leen mm-hmm. bu ñu leen teg foofu mm-hmm. fan fan la ñu jëm di rebondir sur loolu Eva parce que tamit notre principale préoccupation au-delà du parrainage c'est les le centre ado boo xam ne COPEX am na euh, mbébét pour tabax ko mu doon lu metti ci ñun foofu nag sama xel dafa jàpp xam nga kan góor gi Dieng parce que dama ko dégg démb. Mhm. mu wax affaire bu ma bu daw sama yaram. Mhm. mu ne nit ku tekki xam nga lan la. du am naa lii góor gi si Dieng. Mhm. d'accord am naa lii wala am naa la wax ko ku seetaanul am na mbokk yu koy. seetaan wala góor gi si Dieng te te duwaaw nañu ñu koy waxee bëri nañu Sénégal macha allah. mu ne tekki mooy nga xool nit ki changer vie am am apport boo xam ne. waaw changer nga vie. lii maa ko def c'est Mm-hmm. nga xool ne kii nekkoon na ci état bi nga jàppale ko contribuer à ce que vie am amélioré contribuer ci mm-hmm. développement développement mm-hmm. dama dégg loolu dama taxawaat dégluwaat ko dégluwaat ma ne kii man mi ah, ah, bi ma ko déggee li nga def laa def eh, eh, kon woo leen ko acca bi ma ko déggee li nga def laa ay kon waaw gis nga Eva naam social dimbalee neex na torop dëgg la mais li neex mooy boole ci Sadio Mané yàlla may la waaw kañ mu ngoog yàlla may la ba pare nga amum xel Mm-hmm. gis nga loo yor te yoroom xel ndax alal lu mu fekk ci nit ki yokk ba mu des xel ma mm-hmm. loo yor te yoroom xel mm-hmm. yoroo dara mais macha allah dama gis ne ñoom ci biir ñoom sportif yooyu yàlla dimbali daf ci am ñoo xam ne dañu posé ba pare am xel xalaat ne àdduna fii la nekkoon man dama jàpp ni Eva ku fanaan de sagesse ci mbedd boo rombee ku fanaan ci mbedd sa yaram war naa wallaay ku ko mos ku mos xiif boo rombee ku xiif sa yaram war naa bu dee la day mel ni mësta xiif euh, mais ni tout est parfait. ce que xam nga ah, fàtte xaju fi de est-ce mm-hmm. école la école bi dafa bari ay classe mais dafa lu may mm-hmm. yéem ci bi. Mm-hmm. mu di mooy ku jàng ci classe yi ba pare boo pare dootoo fa a dellu dootoo fa bëgg a tee def dara. classe ñàkk la. dem kaso. Mm. wéradi ku dugg hôpital boo génnee tey borom barke danga naan su ma génnee bi dana ne booy. mami dellu sil ci classe su àdduna yi. àdduna école la. école bi dafa bari ay classe ñàkk ci ci classe la bokk am na ñu fay jàngee benn. dem kaso ci classe yi la bokk am na ñu fay jàngee. allahu akbar wéradi gii ñuy wax nii ci classe yi la am na ñu fay jàngee. Mm, dëgg mais ku fa jàngee tey borom barke boo génnee danga naan moom man daal école boobu daal dama fa doon jàng seetlul ñaari borom barke bu ñu ko tëjee kaso bu génnee c'est rare mu dimbali waa kaso ba dootu leen benn aide. Mm-hmm. du fa dem te mémoire bi mu fay nekk yow mi ko fay fekk di def social daf lay giñal ci yàlla ne la bu ma génnee fii dara dootu fi jeex. mais ñaare mami. sama seetlu la bu ma mës toog rek ci rukk di ko xalaat keneen itam xalaat na ko boo déggee ñu naan ancien prisonnier ñaare nit ki loxo ma mënul euh, naka loxo ma jotul gannaawam waaye boo nekkee rek ku yàlla may dañuy def ni kii mësut a nekk mais et pourtant waaw est-ce que xam nga daa am slogan bu ñuy wax ah. tekki égal dem kaso luy loolu réew mi nee nañ bala ngaa tekki faaw nga ñam kaso boo yore xaalis bari ñu ne non moom bi muy dem kaso noonu demoon noonu mais am na tey ñu nekk ca kaso ba ñoo xamante ne la leen fa yóbbu ay caaxaan yu ndaw la woon ak inconscience dëgg ñàkk xam adduna bu baax mais tey dem nañ ba seeni kayit réer na fa mm-hmm. dem nañ ba tey kenn lijjantiwu leen mm-hmm. parce que bàyyiwuñu famille ci seen ginnaaw bu leen mën a dimbali wala bu leen mën a taxawu mm-hmm. wala kenn ku mën a jóg jàppale leen ñoom ca la ñu nekk tey fii ñuy waxee nii tey yéen a ngi lim sportif yi wax naa ko fi barki dem di ko woo ci ndimbal ci centre ba ku mel ñoom daam dooy ak ñëpp dama leen di woowaat nee naa leen tey jii man de xaw ma ku ma xamula ak ku ma amul sa numéro téléphone mais ñi ma ko am ñëpp tey doo leen am jaam mm-hmm. dinaa leen woo moom kay def ak ñàkk defa fii nekk mm-hmm. waaye sama kanam moom ci kàddu yàlla di ngeen ko dégg numéro téléphone mami merci encore 77 pareeguma de tey dama lay wooteloo ñaw mm. li nii lay def waaw 77 77 532 532 79 79 05 05. waaw 77 532 79 05. ñoom dañuy soxla soxla ku jël euh, benn xale nga nekk marin marin marinam. wala nga nekk parrain benn la parrainage la ñu soxla rek. ci xale yi waxuñu sax leneen mais ngeen gunge xale yi rek. jox leen une vie meilleure. Mhm. kooku c'est magnifique. Mhm. et puis je reviens sur le parrainage. très bien euh, lu tax mu am importance. pour xale yi jàngi ndax tamit centre yi fi nekk ñoom tam boo leen fayul centre yi dañuy tëj. dëgg la Eva Tra ñooñu bu ñu liggéeyul tëj seen centre yi fayu ñu seen ay charge fayu ñu éducateurs yi fa nekk mhm. ñiy téye xale yi foofu ndox ak courant seen loyer mais seen école yi du dem te ñooñu bu ñu tëjee mhm. musiba la pour parents yi mooy li ma doon wax nee na ci covid bi ñun ñëpp toog nañu suñu kër coow ko ne xale yi nu jàngiwunu dañ leen di fayal waaye gis nga ko ci dem ba dal nank mhm. ba toog ba xam ne ñële seen lépp ci jàngu xale yi la woon ci pay la xool sax bu dee weer 10 000 da ko dem fay pour être tranquille toi-même voilà tey jii une de des personnes yoo xam ne ñoom ñoom mën ci say doom dëgg la sa doom yi bu ñu nekkee ci sa kër yow doo xam foo nekk c'est yow mii nga xam ne parent bi dangay ngay dóor waar di gàddu sa mbuus di dem di jaay di dem di def sa petit commerce di dem di def di dem di xale bu mel noonu bu nekkee ci sa kër te amuloo ku la ko téyel da ngay obligé toog parce que am na ñoo xam ne dañuy déposer seen xale école ba pare door a dem defi seen petit commerce wala def seen activité boo xam ne dinañ ci am un petit revenu pour ñuy mën a euh, dundal jàppale seen borom kër wala nekk ak seen ay doom et nga xam ne amuñu borom kër ñu xam ne elles sont am na ku ci am ñett. macha allah ñett voilà. ñetti ñetti bébé enfant autiste. Ah. gis mhm. nañ ko salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. soxna si bisimilah. Eh, Eva Tra maa ngi lay nuyu di la bu baax. maa ngi la koy delloo bu baax a baax. Eh, di nuyu aussi soxna Xadijatu bu baax. maa ngi lay fay eh, communauté. ndeysaan ah <laughs> Evia comment vas-tu Eve. macha allah Xadijatu ça va ziar naa la sant ci émission bi. wallaay wallaay. <laughs> Euh, lii dafa am solo. donc lii la Sénégal soxla lu mel nii la Sénégal soxla. Euh, des dames de valeur ah jigéen ñoo xam ne vraiment dañuy jox dox ci entrée sociale. donc du ñu def lu dul féliciter leen bu baax a baax a baax. Euh, di wax ne parrainage bi aussi incha allah man dinaa ko woo dinañ ci waxtaan bu baax a baax a baax. Ah, jërëjëf waa xale yi suñuy doom la ñu. donc te yaakaar naa ne doomu kenn doomu ñëpp la. Mhm. doom sa doom ci xel bu baax a baax lépp luñ ci dimbali nit rek ñu dimbali ci nit yàlla rek tax. dëgg la dëgg la donc bravo encore une fois. merci beaucoup merci di ko jaajëfal bu baax soxna su yiw. soxna entrepreneur bu baax boo xam ne elle ne travaille que sur ça di dem jéem jàppale jigéen ñi. pour ñu mën a dem am yenn seen activité dem de l'avant et tout. dëgg la waaw on s'est rencontré ci yenn euh, activités yi te mm. vraiment maa ngi koy gis tamit sur Facebook. c'est vrai macha moom tamit activité bi muy def yal na ko ci yàlla jàppale. merci ah. doom yu mel noonu tey seetaan te xamuñu woon association bi xamuñu mm-hmm. woon écocentre yooyu mm-hmm. léegi fan la ñuy jaar pour rencontrer numéro téléphone bi rek ma joxe ko ak euh, bu ñu demee 77 man mm-hmm. saa ma woowee buñ ma woowee dinaa leen euh, dinaa leen wuyu wala ñu dem hôpital Fann <coughs> centre pédopsychiatre kër xale bu de kër xale bu ñu demee foofu bu ñu fa fekkee madame Ndaw assistante bi dina leen wax bu ñu soxlawee garab pour xale bi parent bi moo koy jënd wala centre bi la am. ci loolu laa doon jëm laal nga point bu sensible itamit. te ñu ngi ci oh. doon waxtaan. Mm-hmm. parents yi itamit ñu ngi ci ay jafe yu métti ndax euh, COPEX daan na def nu mu am bu xale bi soxlawee garabam ñu jàppale ko te garab yi cher nañu. torop benn bi 25000 lay jar. Mm-hmm. benn boîte bi dina jar 25000 am na benn boo xam ne 10000 lay jar ndax mooy dalal xale yi moom la leen di médecin bi di prescrire. su jeexee wala balaa muy jeex dañuy woote ñu jàppale leen jël ordonnance bi jënd ko COPEX mënatu ko te xale yi bu ñu naanul garab yooyu du baax dañu nekk ci état bu doy waar. Mhm. moo tax vraiment maa ngi ñaan yàlla itamit. bu ñu beneen occasion bu ñu ko amatee. am na ay maladies yoo xam ci boppam ñëw toog expliquer lan lay dund ak euh, ak doomam. xam nga am na ay maladies yoo xam ne état daf ko jël en charge comme ay dialyse mhm. ay yenn maladies war nañ fa mën a dugal yu mel ni parce que parce que voilà parce que dialyse dafa doon ñu dugal fa loolu waaw daf dafa war a mën dugg parce que loo xam ne yi day c'est gratuit war nañ a dugal garab voilà ko mën a dugal foofu war nañ ko mën a dugal voilà war nañ ko mën a dugal mooy li mooy wax rek li ma mhm. doon wax ne euh, ci covid bi bi ñu mhm. waxee action sociale bi ñu waxoon def pendant la période Covid bi. Mhm. il a fallu que ñun ñu dem di taper ci ci porte yi porte yi. Mhm. Mhm. pour wax ne ñii dañ ci bokk. c'est vrai j'ai interpellé ñi nga xam ne ñoo nekk dans les centres de protection et de réinsertion. Euh, CPRS yi. ne leen vraiment mooy les structures de base sociales de base. ne leen ñii dañ ci bokk. kii nu mu tudd ci personne euh, action sociale bi ñu war a def rek yemul ci ki nga xam ne peut-être amul xaalis wala yemul ci ki am euh, handicap physique wala yemul ci comme yi ñuy tàmm di gis ñii ce sont des personnes vulnérables xale yi de bu ñu waxee carte égalité des chances tamit même loolu tam dinañ ko fi souligner mhm. seen carte yi génnul depuis 2014 on avait déposé avec spécial Olympics am na ñu am am na ñu amul. ñu madame. Siraja madame Siraja voilà. Ah, ñu ngi leen mm. tamit on collabore beaucoup. une battante mm-hmm. aussi. Mm-hmm. vraiment donc loolu yëpp mu ngi ci. Mm-hmm. carte égalité de chance. bu génnee bu génnul xale yi ñoom la ñu war a njëkk jàppale. dëgg la ñu jox leen yenn denrées yi jàppale seen parents di interpeller aussi. Euh, ministère man xamatuma sax nuñ nuñ ko découper. doo ko yemale ci benn ministère ak euh, ak comment s'appelle encore ñi. chargé des personnes vulnérables mm. Sali voilà. Mm. Sali Diop dañ koy dañ koy vraiment. Ndeye Sali Diop ah. Dieng. dañuy wax ne que ñoom ils ont des projets pour les personnes vulnérables mais mënuñu am accès ci ñoom ba te boo paree nga dem seeti Oulimata Sarr. Oulimata Sarr euh, macha allah. feneen foofu nga fëgg noonu fii mi ngi Ndakaaru. dinañu dinañu xool luñ ci mën nga dem gis ka wax dëgg yàlla feneen feneen foofu nga fëgg noonu bu bu weesee seen place dañuy jàppale wallaay wallaay lu dëgg la xëy na ministère ba beneen affaire la waaye mbokk itam dina rataxal lu ne. waaw Ndeye Sali jóob Dieng sama bàjjan la. macha allah sama yaay la. Mhm. sama soxna la ci beneen côté. Mhm. donc moom maa jël demal ci soxna bi. maa jël maa yaay ji yaay ji lay. toog toogaayu njëkki. non non mais yaay ji da koy xeex. waaw maa su ma paree léegi mu ne tam moo ne maa ndeyam Baali di wax rek su ma paree mu ne moo ne maa la jur de. Mhm. xam nga. waaw bàjjan Ndeye Sali. naam euh, maa ngi lay kii léegi taay da yow maa ngi am ku ma la yónnee léegi léegi. foofu moom bu may paree léegi di ca ndox foo xam ne ah. Ah. di nga fa mën a jaar ba daal di egg ci saa si parce que baara dafa laaj lu am solo mhm. faj mi ak garab yi ak fa ñu leen di dalalee mhm. loolu état moo ko war a jël mhm. xam nga lu tax Eva nañu moytu bot di compter ci biiru xeet nañu moytu marginaliser yenn nit yi parce que dafa am ñoo xam ne boo leen wàññee ca la ñu nekk wala joxoo leen gëdd ba ñu moom dama mës a toog di waxtaan ak ay xale yi fàq man ma laaj leen lu leen yóbbu ci lii li ngeen nekk nii mhm. Mhm. ñu ne ma parce que ñoom dañu gis ni société bi daf leen seetaan mhm. kenn boolewu leen ci dara kenn dugalu leen ci dara ba ñu dem ba yegg foofu donte li soxna si wax sànq mooy que bon moom bu àdduna bi yëpp àndoon di ko def du tax bon baax du ñu leen encouragé aussi ca la ñu nekk mais balaa ngay dem di xas nit ki xoolal ci fi mu jaar ba egg fi mu egg xoolal lan moo ko forcé ba mu am jikko bi mu am tey li may wax koo xamul paaseem bul juger présent wam bul reyee sama présent parce que mën na nekk sa futur donc ñii nañu ci jàpp léegi nii ci bi muy jot état yow yaa ñëw taxaw ne dama bëgg a yor seenum réew dinaa leen defal lii dinaa leen defal lii dinaa leen defal lii ma jàpp ne li mënta ñàkk mooy faju wopp faju xiif lekk dem jàngi te ñett yooyu yëpp xale yi dañ ci am seen cër mm-hmm. parce que xale yi dañu war a faju seeni garab ki yuut muy te bu waccoo dee ndaxte ki nga xamante ne paas bu mu paasee pour yóbbu doomam mënu ko jël di ko dugal ci bus bi mënu ko jël di ko du yóbbu ci arrêt bi parce que seen ay humeur bopp lañu yor mën nañ gaañ seen bopp ñoom bala ñuy gaañ keneen ci yenn xale yi ndax dinañ excité benn façon boo xamante ne li ñu bëgg taxe nga leen di dugal su la yàlla mayul sa daamaru bopp ñoom nag ñu ngi bëgg confort nag ñu ngi leen gisee noonu maree leen mais xam nga lu tax dañu bëgg confort xam lu tax loolu waaw dañoo rafet <laughs> ñoom dañu am seen taaru bopp boo xamante ne ñoom rek ñoom rek ñoo ko mën a génne ci moment bu mu leen neexee parents yi soxla nañu lekk mhm. lekk bi mën na am que li parent bi di togg ci kër gi ñoom mënuñu ko lekk wala bëgguñu ko lekk ndax ñoom seen bopp la ñuy topp mhm. ñoom topp ñu kenn mhm. donc soxla nañ ci côté boobu soxla nañu solu beeg leneen ak leneen ndax dañu bëgg àdduna mm-hmm. nit ki daal boo koy dimbali danga koy dimbali ci bi mu tàngee tey nag ñu émission toog fii di waxtaan xam ngeen tey lan la. <laughs> lan la <laughs> nga def sax nii moom laa def nii. non mami kontaan nañ ci yow. kontaan nga ci li ngeen <laughs> li mu mën Eva du ko mën. macha allah kontaan nañ ci bien ak dem ci waa Enfant Soleil. Mhm. parce que macha allah euh, dañu la dalal noonu lañu ñu conscient wee itam. Mhm. ne Sénégal am na d'autres associations. Mhm. qui sont au chevet des des enfants. ah ñoom itam ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier di rafetlu seen liggéey bu baax a baax. soleil est né ñu ngi remercier soxna Adama Ndaw mhm. di remercier docteur Fatou Wade mhm. suñu xel day dem ci monsieur et madame Sirajad mhm. Amignan moom ma nga États-Unis waaw dañuy on collabore on t'adore on t'aime très très fort merci pour tout ce que tu fais pour nos enfants d'ailleurs say doom la ñu sax dañuy wax noonu rek nga ni Amignan da ngeen di ah on collabore beaucoup très bien exemple lam rek war na doy ñëpp exemple ñëpp une femme brave battante gëm muy def c'est vrai ba mu mën son histoire je crois a été lue écouté plus de presque 2 millions de fois sur, Vrai. sur Facebook ndax une émission une une euh, une histoire tellement émouvante mhm. invraisemblable donc ñu gis ne volonté ak gëm moo ko andi fii li mu def ci doomam ñëw na ah, ñu a def ci doom ñëpp ci doomu ñëpp mi ngi a dix jours elle m'a appelé mhm. pour wax ma intégré dugg ci kii yam pour mën a di liggéey ak yi mhm. elle fait beaucoup de choses pour le COPEX daf ñuy jàppale vraiment ak une dame qui s'appelle Matou aussi Matou Diogo c'est la mère Teresa moom laa ko tuddee. Diogo ñu ngi lay nuyu. elle travaille a beaucoup beaucoup d'associations. ci Aminia boobu am na ñeneen ñu ma lay defal link. Mm, mm. ñu ngi États-Unis waa Wér Africa. Mm. Wér xam na ne man ak moom la ñu décoré ndoo woon. très man sama 10 ans social yi eh, euh, association bi ma décoré États-Unis la ñu jógee. Mm-hmm. waaw Sénégal mosuma gis kenn ku reconnaître li may liggéey waaye heureusement. te eh, eh, xaaru ma maa ngi toog mm-hmm. maa ngi nii ak. ñi ñuy seetaan saaga yi may saaga après da ngaa bëgg ma sa sa soppi yi dal après dangaa bëgg ma ci kaw. Mhm. <laughs> waa wér Africa. waaw xale bi ko yore mi ngi tudd Fatou. Mhm. mi ngi nekk ba Mbour. d'accord su ma juumalee mi yaa xamante ne ak xale bi. Mhm. moom moo ma boole woon ak moom. mais mu ñëw fi def fi lu am solo. inchallah ñoom euh, bokk nañ ci ñi décoré woon Aminia boobu. Mhm. Euh, wane woon doomam ba yu bare bari xewoon. ñu mën a jàppale waat ñu ngi may jàppale ci jigéen ñi ci prison yi. ak seen doom donc Fatou Faye maa ngi lay wax ne la léegi tamit mhm. maa ngi lay booleek soxna si. Mhm. pour que ngeen jokkoo. xale la mbuur la dëkk mais jigéen ju am jom wéer Africa lañ tudd. ñoom rek ñoo mus a décoré ci àdduna macha allah ma ma waxati ko. Euh, nit a ngi toog nekk ci lii di ko liggéey bu nu la gisoon tuuti dañu lay tudd nga baal ñu àq sax ci luñ la tuddul parce que euh, da ngay liggéeyal sa sunu borom dëgg la waaye itam ne nit ki jër jëf dafay neexal xool te lii ma ni mel di nga liim di nga liim doo doo doo dajal ñëpp pour loolu nag mm-hmm. ñu ngi excusé wu bu baax a baax a baax mm-hmm. képp koo xam ne daal yaa ngi liggéey nekk ci social mm-hmm. même bu ñu la tuddul fii daal xamal ne suñu ñaan daal yàlla na la dal euh, waxtu bi mu ngi waaw ñu bàyyi la nga nga yebbi la desoon ah, voilà ah, loolu rek li ma bëggoon wax mooy loolu donc suñu ambition loolu la spécialistes ici au Sénégal ndax ñu ubbi fii ay filières yoo xam ne mm-hmm. spécialité yi c'était en Europe ou aux États-Unis ou au Canada ñu ubbi ko fii Sénégal Sénégal xarañ nañ en matière d'études et de formation mën nañ ubbi fii filières yi ay mm-hmm. orthophonie pédopsychiatrie ak yëpp ñu bañ a dem di ko jàngeeti feneen jàngee ko fii yombalal ko nit ñi mhm. les étudiants sont là war nañ ko mën a def mhm. jàng bu ko defee bu ñu génnee ñëw hôpital Fann wala dem ci yeneen centre yi mhm. xëy na peut-être que des d'autres centres pédopsychiatriques ndax ñoom docteur Dior Diagne ñu ngi koy remercier voilà waa kër ñu am ku leen jàppale ñëpp ñu jàppale leen di vraiment di di def un coucou aussi à xale yi qui abattent un travail vraiment titanique par rapport à ces enfants parce que yombul Euh, di ko teg nuyoo bi ci loxo euh, le médecin chef professeur Lamine Fall mi nga xam ne vraiment moom luy jóg mu ne jox leen ko waa COPEX on travaille avec euh, ñoom ñëpp Kulim Dioum boo centre psychiatrique bi bi nekk tamit fële Diamniadio avec médecin chef yi fa nekk ñoom ñëpp mm-hmm. on collabore ak xale yi di ñaan yàlla itamit mu may ñu ñi nga xam ne dinañ mën a dem am ay antenne dans les régions parce que mm-hmm. imaginez régions yi ñoom ñëpp fii la ñuy ñëw pour ñu mën a suivre seen doom aucune Euh, aucun centre pédopsychiatrique dans les régions parent yi dañuy obligé di def lan di tëj seen doom yi wala di leen mhm. bàyyi noonu. bàyyi ci mbedd mi ñuy dox waaw ñuy dox noonu. xale yi ils sont livrés à eux-mêmes. Eva nañu waxante dëgg ce sont des enfants qui sont des Sénégalais mais ici yàlla moo leen fi andi ils ont le droit de bénéficier de l'éducation. Mhm. am nañ droit ci lépp lu ñuy dund fii ñu ñi doomu mhm. aadama ñu war a am ci lañu bokk. kon nag nañ leen jàngal def effort dugal leen ci structure école yi former des maîtres en matière de de déficience intellectuelle mhm. déficience former leen na xale bu ñu ñëwee ci classe yi mhm. wala école yu ñu mën leen accueillir mhm. ndax tey jii parent bu fayul defoo sa loxo ci sa poche sa doom du jàng parce que amuñu fu ñu leen dugal à part CFD yi bi nekk euh, centre Talibou Dabo te ñoom mënuñu jël ñëpp dañ leen di supporté taalibu daa boo gën a sonn voilà mënuñu jël ñoo a sonn man lañ def ambassadrice ba fi mu toll nii nag maa fay ki bees mu ngi parce que yéen la <laughs> bokk de choses à faire et pourtant tout simplement bu ñu ci boolee rek ñu bokk mm-hmm. parce que y a des gens qui sont là pour dimbale ñi ñi ngi dimbale social ñu ngi koy def ci anam bu nekk mm-hmm. nañu boole xale euh, yi ak seen i parents ci loolu seen waajur yi sonn nañu ba fi mm. sonn yem mm-hmm. xale bu mel ni boo ko amee ci sa kër te sa loxo jotul ci sa gannaaw mm-hmm. sonk nga mm-hmm. sonn nga parce que di nga affronter lu bëri déjà fii la culture est tellement lourde pesanteur sociale boo xam ne la ñu jël sa bët teg ko ci seen sa doom di ko xool nii la mel dañu am ñoo xam ne dama ne boo leen sa doom foog ñoom boo leen wonee sax voilà daa am ku la ne yow li tax nga wone voilà li tax nga ko li tax comme si du xale comme yeneen xale man li may dégg Eva ci ah, téléphone bi ak ñu may waxtaan di leen wallaay wallaay yàlla rek moo del nëbb sa doom bi waaw yooyu da ngay dégg kon nag vraiment di di ñaan yàlla yàlla jàppale ñu ci ñi nga xam ne ñi nga woo fii ñëpp ñi ngeen woo fii ñëpp yéen ñëpp ci yéen bi yal na yàlla mottali amiin amiin amiin ndeysaan on compte sur eux bu uh-huh. xale yi mën a ja jàngi parce que bu ñu jàngewul itamit y a des parents qui sont désemparés mm. jaaxle nekk ci kër yi merci xale yi war nañ jàng di leen remercier yéen ñëpp du fond du cœur au nom du COPEX <laughs> Eva parce que vraiment tey jii ku am xol mm-hmm. ak yéene ku xam comment ça se passe yaay mën di xalaat lu mel noonu ñu teg ñu ci plateau bi noonu ngeen ñu may cinq minutes voilà TFM moo ni mel. moo ni mel même Pape Cheikh sax dama koy remercier waaw. Pape Cheikh on a sa nostalgie Pape Cheikh Diallo waaw c'est vrai ndeysaan. boole ko ci pare kenn kon bokk merci beaucoup. voilà Thiam ñun itam ñu ngi lay gërëm bu mhm. baax a baax. ACDEM. Mhm. voilà waa ACDEM aussi waaw ñoom ils sont beneen kii la daal ñoom ñu ngi waaw ñoo bokk même combat bi bu baax a baax ñoom mhm. itam defe naa ñooy wax doom sa doom waaw voilà ñu ngi leen di nuyu euh, soxna ma ami yow itam ma bàyyi la euh, tàggatoo li baas kër xale yi jëlal naa ko benn xale Ah. moom moo koy parrainé kër xale libaas très bien euh, yow itam euh, kër aram jàppale mm-hmm. Mm-hmm. jëlal naa la benn xale yàgg na ci social ci lay dox euh, man ak moom benn at la ñu jiitlantee campénal mm-hmm. te mën nga ma nga fay def lu baax kor aram surtout surtout ngalandu wallaay waaye dafa xaw a waaf <laughs> maa engagé fii ci sa tur jëlal naa la benn xale di woo ajaratu moomi kebe mu alaaji njuga kebe ak marem jeng saala kooku social rek a ko ñor moom itam maa ngi ko ci woo bu baax di ko teg ci loxo fàllukaa gaa yooyu leen ma gaaw yóbbante bi sama dafa dem ci Binta borom Ebeno. Mhm. xaritu Eva Tra la ko. Binta nit ku baax ah, de cœur et d'esprit. nit Binta Lalla lañ koy wooye mhm. waaye Binta laa koy wooye man <laughs> moom itam Eva mi ngi koy woo. pour bu mhm. dem jàppale waa kër xale yi. am nag ñaari kii yoo xamante ni dama leen di woo muy metre Dior Diagne ak maître Lika Ba. c'est vrai maître lii ka ba yow sama doomi nga yaay sama sang maay sa jaam ba tey ndax sa baay ak sàmbay la jóob sama nijaay àndoon dee rek a leen tàqale <laughs> kon yow itam maa ngi lay woo nga ñëw yow it na ci xale yi maître Dior Diagne yow loolu mooy sa dox waaye nag ki may tëjee woote bi nag mooy sama yaay bopp ji nga xamante ne yow njaay léegi may tuddee joor te tudduloo Tamaru <laughs> Tamaro Seydi Seydi Alassane wuy ma yow sa jaram lambul de yow rek laay xaar. léegi <laughs> eh, eh, Fatou Guewel da ngay ne Fatou Guewel. waaw Fatou Guewel woon nañ la ay xarit. ak ay xarit <laughs> ku mën social soxlawul lim neel Fatou. dikkal ak sa ay xarit. waaw jeex na kon Fatou ñëwul ak say xarit. boo di jël ma téléphone maa ngi lay woo léegi xale bu dëgg bi. ñëw leen ba tax na ki may tëjee woote bi nag mooy sama yaay xol ji nga xam ne yow Ndiaye Jaata bu ma ne la woon jëlal fukk nga jël fukk ajaratu Yacine Ndiaye. dina ñëw bokk ci yéen. yaay xol la ah. moom leen rek moo ma metti ci moom mooy tudd bii ma ko tudd tey ay dóor dina ma ci fekk ndax yeddi sama buntu kër laa koy fekk mu tege waaye kiy def bëggul ko ko wax mm-hmm. waaye faawu ñu wax ko mm-hmm. jërëjëf delluwaat di leen waxaat ne leen def leen ci yàlla ji bala ñu leen ciy def mm-hmm. tukki boodul yóbbu bagage amee fretal bala ngay dem Sénégal nga mën a toog am un million jënd ci àjjana yàlla desee la bor nga am ci un milliard jënd mhm. ci safara sunu borom yoreel la ay dóor mhm. jël xaalis ak ni mu teddee di ko sànni mhm. di jël xaalis di ko def leneen di ci jënd tur grand théâtre tëj na grand théâtre kaa bu mag baa ngi nii ñëw leen kaa fii <laughs> boo liggéey yàlla nañu ñëw baatre fii ku la sañseel wala ma romb <laughs> Malick moo euh, sama xarit ba xadi nekk fii ci almadi bi moo jaar ci bopp bi di wax ne kenn gënu leen si la suba ak jàmm ak salaam ma joxewaat numéro bi ci kàttanu yàlla Ousmane Noël Dieng yow itam sama xarit bu baax bi maa ngi lay nuyu <clears throat> du yow. jërëjëf Diop mhm. macha allah mhm. Mhm. nee naa dañu tudd social dugg ci weer yi déggeen chimère itam ndax weer bii la génnoon àdduna. yàlla yàlla yóbbu ko aljana waaye suñu xel itam tey dafay dem ci sunu yaay ju baax ja sunu goro bopp sunu xarit woon ajaratu xanata juur yi 35 ans ci tey mu génn àdduna te ba tey macha allah li ma naan am nañu yàlla may gudd fan gudd fan mooy nga jugi fi ay ati ati at saa ñu ko tuddee mu mel ni tey lañ la ñàkk yàlla euh, euh, aljana di seen noflaay ñoom mook ñépp ñi fa nekk ak ñu ko fekki macha allah ak mm-hmm. Adja Roqaya Diouri ah mm-hmm. sama sama sunu goro yu baax mm-hmm. yooyu macha allah joyeux anniversaire à Awa Malick Camara Awa Malick Camara Ndiaye àdduna ni mel ñii dañuy mm. dem ñii di ñëw ñii di mm. gudd fan ñii di mm. gàtt fan yàllaay def lu mu dogal rek ñu nangu waaye yal na la yàlla may gudd fan macha allah Awa Malick Camara Ndiaye ñu ngi koy nuyu Awa Dabo tu vois Sénégal daal def la <laughs> voilà waaye oustaz Pape Mbaye joyeux anniversaire à <laughs> kooku suñu càmmiñal bopp la ah. macha ah, allah anniversaire na oustaz bëgg àdduna ay ca <laughs> lan ñu ngi encouragé tamit euh, di ko encouragé mm-hmm. te xam ne euh, li mu nekk mission la di ñaan rek ñi ko doon déglu ñëpp tey seetaan mm-hmm. euh, ñu ñëw jàpp ci xale yi mm-hmm. ndax xale yi foog naa ci ñun la ñu bokk te Sénégal société bi dafa tëddee noo xam ne bu amee doom bu mel noonu dañ lay baatal doom bi rab la doom bi nàngam la doom la comme doom yëpp rek yàllaa ko teg nattu natt bi ko yàlla teg nag nangu ko soo ko nangoo bul déglu keneen mhm. te ñoom seen liggéey li ci gën a metti mhm. dañuy jàppale xale bi di dalal yaay ji mhm. ndax yaay ji day day pétrifié du nekk ah, kon ñu ngi lay remercier bu baax. di la encouragé di remercier ñu doon déglu ñëpp tamit. di ñaanal euh, wareef yàlla defal leen jàmm ak sutura. amiin amiin Eva Tra balaa ñuy tëj. waaw mission bu ma leen bàyyi mooy ngeen utal ñu nag euh, audience ak monsieur le président bi. Miya Ndour jox xam naa ak Birane waaw laajee nga ko fu jara laaj. waaw ma ni Birane ci boppam. ñëw nañ ci ba sonn bu ko déggee dana leen recevoir. Ah, waaw nag bu waaw xam nga nooy def. Mm. waru Eva bu koo ci jot rek baax na. nel ku ma ci jot baax na. <laughs> njaganduwul ñu ngi koy. président yu sundu daal bëgg nañ ko di nuyu képp koo xam ne daal ci bërëb bi ngay xëy si. yal na yàlla defal nu jàmm dolli ñu ko dolli ko ci kër gi dolli ko ci kër yi. presse yëpp macha allah may remercier bu baax a baax waa waa waa Bamanan Couture macha allah seen numéro di 77 321 08 74 77 321 08 74 ñoo ma sola lii ak tissage nag ndey ami moom itam maa koy remercier mu mel ni réalisatrice am na loo ma bëggoon a dee réalisatrice am na loo bëggoon wax. très bien poté kon ñu ngi koy xaar waa poté man dama doon bëgg ñu won ma tuuti ci poté rek man ma dem ak poté parce que daf may neex waaye nag toog leen rek jàkkaarloog moom ndax moom itam xale bu am bës la na ñu ci wisal tuuti bu ko defee ñun itam ñu jël réalisatrice merci à toi yal na yàlla defal TFM jàmm ak mbooleem këri presse macha allah jërë ngeen jëf